sunu yaakar cheikhul khadim mu yeggale ko ba nal yeneen di nal di ko ñaana bu baax baax serigne cheikh jëmm fall khalifa mam cheikh ibrahima fall di ñaan sunu borom yagal ko fu baax te wéral ko ba pas-pas ak yene jim am ci liggéeyal mamam ju baax ja yalla nako ko sunu borom katnal bam liggéey ci lu kawé ndortam di ziar bu baax bah baax mbollem seuti serigne touba yeb di ziar mbollem cheikh serigne touba yeb di ziar talibé yeb di ñaan ci barke mam cheikh ibrahima fall lepp lu ñuy topp ci liggéey bi yalla nañ ci dajé mbokk yi xam ngeen ne saabu e, talaata jotee ci e, waxtu wi ngeen bàyyi xel seen jotaay bii ñu dippe Jazbul Murid ñu ciy waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall lépp rek ngir e, topp ci am njàngaleem ak li nga xamante ne bii moom la ñu joxoñ te lépp muy léggeel Serigne Touba sunu yaakaar Cheikhul Khadim tey nag ñu dikk ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak tolluwaayu jamono fii jamono ji toll ku ne xam na ne roy Cheikh Ibrahima Fall rek ñuy dimbali mooy tax itam ñu xam dëgg fu ñuy teg sunu tànk ndax fii jamono toll yëpp Cheikh Ibra waxoon na fuñ ca àggee lépp loo xam ne rek bëgg nañ caa mucc am na yoon woo xam ne joxoñoon nañu ko te ñu ca jaaree suñ borom mën naa dogal ñu mucc ca yenn yi e, xam ngeen ne ci jotaay bi nag ci lañ ci e, séq tey ak sunu kilifa defe naa kenn du ko présenté ndax bii mooy ñetti yoon wala boog ñaareelu yoon boo xam ne ñëw na ko ci jotaay bi muy maam Cheikh Fall moom Serigne Cheikh Fall Mbor ñu gën koo miin ci maam Ibrahima Fall ñu tudd ko Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall maamam ju baax ja ñu woo ko nag tey ci jotaay bi ngir mu fas yéene ñoo indil lenn rek ci njàngale maam Cheikh Ibrahima lenn itam ci li nga xam ne mën nañ ko royee Cheikh Ibra ngir ñu mën a mucc ci tolof yi nga xam ne moo ne ci jamono jii nga xamante ne bii ci la ñu nekk te jamono jii ñu baax ñëpp waxoon ci yii nga xam ne yegsi nañ ci tey waxoon ne waxoon bu yàgg ne danañ ci toll ndaw ñi nga xam ne Cheikh waxoon na ne it nag ndaw ko ko waajal mu war a waajal boppam lépp rek incha allah tey danañ ci dikk ak moom ñu feggoog Serigne Alioune Badara Ndim mi nga xam ne saa su ne itam xam ngeen ne liggéey bu rafet bi nga xamante ne bii mi ngi koy taxawu fii ci bërëb bi rawatina nag ci jotaay tamit jës bu murid bi nga xam ne léeg fii ñu toog mu wutuñu fi lépp rek ngir pas-pasam ak yéenam ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tey tamit ñu seq ko mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom itam dañoo am pas-pas ci jës bu murit waaye tamit du dund maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ak sëñ maam Cheikh faal mi di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall tey ñu woo leen ngir ñu fekkee si jotaay bi loolu lépp incha allahu danañ ci gën a yaatal bu baax bu ñu demee ba ca kanam tuuti nag danañ ànd ak Serigne Fallou moom Serigne Mourtala moom Serigne Touba Cheikhul Khadim moom nag euh, Baye Fall la ndax Serigne Mourou Moussa Fall moo jur way juróom wu jigéen moom it dikkoon na fii ci bërëb bi ngir waajal màggaluk li waaye ñëw tamit jokkoo ci ak jëwrin yi nga xam ne ñoo ne ci bërëb bi waaye bi mu dikkee ci bërëb bi itam fi mu ubbee waxtaanam mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ci kanam tuuti incha allah danañ ci ànd ak mbokki taalibe yi waaye xam ne Serigne maam Cheikh Fall Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moom Serigne Moulab Laye Fall Ndar moom itam nekk fële ca Paris moom itamit dafa def liggéey bu am solo jamono yëpp ñu ne ci waajal Eh, taxawu kër maam Cheikh Ibrahima Fall foofu tamit incha allah am na waxtaan yu am solo yoo xam ne defoon nañ ko ca dinañ ci dikk waaye tamit xam ngeen ne jotaay bi lépp itam ngir waajal rek bis bu mag bu tedd bi nga xamanteni bi ñu koy deggmal ci muy bis bo xamne eh, kep ko xamne téwé nga ko si ses xam nga ne jang nga ci lu béré béré béré ci woné mam Cheikh ibrahim Fall ak wax lan moo doonoon ab liggéeyam ak lan mo doon taxawaayam ci yoonu mourid muy le 8 bi di ñew insha allahu mam Cheikh Fall ñi diko ko taxawu fi ci ses ñuy ñaan fekke ko ak jamm ak salam ci kanam tuuti lool tam dinañ ci gëna yaatal suñu dikké ci sëriñ bi kon sa yalin Badara nga nuyo ak mbokk yi jàkkarloo ak nu dalal sëriñ bi doora a ci bir waxtaan jërëjëf sëñ Mamour aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay barki maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki yi taamu seen jotaay Jazboul Mouride di ko topp kon talaata bu jot ñu leen koy dellul si ajjuma yi si guddi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi toog jotaay ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak waaye di ziar euh, Serigne Cheikh Jëmb Fall mi toog jotaay ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér waaye di euh, nuyu ak ziar euh, sunu yaakaar tey ak ëllëg di Serigne Cheikh Ngunda Fall moom maam Salihu Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall. di ko ñaanal Fall mu yàgg fi lool te ànd lépp lum mu yéene maamam mu liggéey ko nu kawe njortam ci ànd mbokk taalibe yi eh, di am mbégte bu baax a baax sëñ Mamour nag di la ziar bu baax a baax a baax a baax di ziar mboolem njabootuk Baye Cheikh Ndaw gépp eh, tàmbale ko sëñ di ndaw eh, jël nuyoo beeg ziar bi teg ko ci di ko di ko nuyu di ko ziar ak mboolem njaboot gépp rek kon mm-hmm. waaye it di am mbégte lool kon ni nga ko waxee mm-hmm. toog ak sunu sëriñ di sëriñ maam Cheikh Fall ni nga ko waxee moom sëriñ Cheikh Fall Mbawor di ziar sëriñam bu tedd ba sëriñ Cheikh Fall Mbawor di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Eh, ni nga ko waxee nag eh, di boroom xam-xam macha allah. jotaay bi di ko di ko di ko namm ndax saa su fi ñëwee. Eh, ñu jàngat si moom lu baree baree bare ci maamam ci pas-pasam. ci bëggam. ak ni nga ko waxee bis bi nga xamante ni. mu ngi koy taxawal ren di fukk juróom-ñetti fan incha allah si weeru avril. Euh, lañ koy def ca CICES di foire bu ndakaaru ni koy ko yàgg defee ku fa ñëw gis fa maam Cheikh Ibrahima Fall ni ngay tàmbalee ba ni ñuy wàccee jotaay bi kon di ñaan sunu borom euh, may ko ngërëmal maamam maam Cheikh mm-hmm. Ibrahima Fall euh, kon ñu tugg si waxtaan seen maamam. tubaarkàlla jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim ci nuyoo bu am solo bi sëñ maam Cheikh ñu jox la kàddu ngeen nuyoo ak mbokk yi jàkkaarloo ak ñun. auzu billahi mina shaytaani rajim إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الهادي المكين وعلى آله وصحبه وخديمه وخديم خديمه المريد الأكبر مام شيخ إبراهيم فالباب المريدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اليقين abaandu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi feddali sunu pas-pas ci pas-pasu ka nga xam ne ba mu ko fasee ca Mbàkke Kajoor diggam ak xaarimu rasul ba yomal xiyaamatul akbar du fecceeku muy maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin du feddali sunu jaayante ci njëggunu jaral ci sëriñam ba yaakaaram ju tedd ja ci lu àndul ak xàcc muy sëriñ Tubaa xaarimu rasul di wax asalaamualeykum wa rahmatullah di jaare suñu siyaar ci Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo fi toogal <coughs> jëwrin ju tedd ja Serigne Touba Xaadimu Rasuul jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye itam noonu la def di ziar maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina muy Serigne Cheikh Jëmbu Fall mhm. mi tooge jataayub maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu Cheikh Ibra gi ci noonu lañ koy defee itam siyaare ki nga xam ne mooy sunu bunt ci yoon wi sunu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Fall Mbawor mi toogee jotaayub Serigne Aline Fall Mbawor ñaan yàgg fi lool te wér. di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan. ak ñi ñuy déglu. di nuyu itam borom kër gi muy Serigne Aline Thioune nga xam ne moom yitteem ak yëngoom yëpp mi ngi ko jëmee ci liggéeyal Serigne Touba. nag ci jëwrinam ji nga xam ne moom la jiital. te boo ko séenee muy dem rek ci jëmm nga xam ne taalibeb Serigne Touba la muy Cheikh Ibrahima Guèye. ak yéen itam nga xam ne yéenay taxawee. jotaay bi di Jazboul mourid mhm. te seenu bëgg lepp xam nañ li ngeen di daj ak li ngeen di def ngir mëna wone wane image bu maam Cheikh ibrahim Fall ci ni ñu ko bëggee mhm. ndax bari na jotaay boobu boko sétane ba mu jeex da nga xam lu laq ci ginnaaw jotaay mhm. waye jotaay bi ci tambali ba ci jeex lu ci ne da ngay gis ne fas yéenee wane maam Cheikh ibrahim la lolu ak bëgg la te daa am goor gu ma mas wax ne ma ko seen muy cheikh cheikh lu du xàcc ndax da am ak bëgg waye non ngeen mel ci yoon yi euh. ngeen def may nuyu itam ñi ma àndal ñëpp dañ fi tay ñoom ñëpp itam gunge si ñu ci bis boobu ñuy waajal. tubaarkalla eh, jërëjëf eh, sëñ Mame Cheikh xam naa incha allah bu ñu nee ba ci biir sax dinañ ko gën a yaatal bu baax xam nga ne bis bi ren. da ko dippe ñaar. muy Cheikh Mouhamadul Fadilu. Mbakke moom Cheikhul Khadim. ak Serigne Modou Mbenda Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina eh, ñaari jëm yooyu la ko dippe Cheikh Mouhamadul Fadilu ak Serigne Modou Mbenda ñooñu nag kenn ku ci ne incha allah dinañ ci dikk ci kanam tuuti. te leen lu ci nekk rek dëppoo ak ndigalal ki nga xam ni ñoo leen fi nekkal muy sëriñ Abo moom Serigne fallu nga xam ne moom ni ma ko waxee léegi rek moom itam daa bokk ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax soxna maam Say Fall moom Serigne Modou Moussa Fall eh, waaye sëñ Modou Mbende it moom it ku ne xam na ne sëñ am di Fall mi ko fi nekkal moom it di léppi maam Cheikh Ibrahima di di jàmbar dëgg moom itam lépp rek ànd ak ndigal li nga xamante ni bi sëriñ bi am na ko ci seen jëmmuy tedd yooyu ngir dippe bis bi ñaari jëmm yooyu kii di leeru ku tedd kii kii di leeru maam fal Ibrahima Fall Baye dina ci kanam tuuti incha allah danañ ci gën a yaatal xam naa sëñ Aline Badara su fekkee ne waa Rési sax euh, jàppandi nañ su ko defee ñu ànd ak euh, sëriñ Fallu moom sëriñ Mourtala moom Cheikhul Khadim suñu yaakaar euh, ngir rek dikk ci waxtaan waam solo yi nga xam ne defoon na ko fii ci bërëb bi defe naa fan yi ci ginnaaw eh, ci maam Cheikh Ibrahima mu Babi na waxtaan woowu nag xam naa mooy waxtaan wa nga xam ne keroog bi ñu dajee ci kër soxna maam Oumy Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall moom ak Serigne Falloum Serigne Sonhibou eh, loolu itam eh, lu mel noona it indiwaat na ko ca jotaay ba wane ne Cheikh Ibrahima Fall mooy yoon wi te lépp lu waaye di jànge ci yoon wi ci moom da koy royee su fekkee na ma di waajal ci yéen te xam nga ci yéen nag lu rëy xew na ndax defe naa 1907 lafa fa Serigne ñëwoon ba 1912 mu jóge fa ñëw njaarim am na kenn sax ci njabootuk Serigne bi foofee la ganee jamono muy Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi loolu dinañ ci gën a yaatal incha allah kon su fekkee ne sëñ Assane jàpp ne na ñu dikk ci élément bi Serigne Falloum Serigne Mourtala ci leeral yi nga xam ne def na ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina ñu door a dikk nag ci jotaay bi.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 Euh, ñu ñëw fii ci barab bi nga xam ne mooy barabu Cheikh Ibra Fall euh, ci njiitul sëñ Aliou ñun barab bi li ñu fi indi dafa dafa bari ndax ni sëñ Aliou waxee ak sëñ Touba dégg nañ ko wëlbatiku yi tuddewaat barab bi euh, Cheikh Ibra Fall nga moom dara daf ma ci génnul danoo mënewul wax ndax suñuy wax moom du mën a gudd Euh, waxi Cheikh Mouhamadou Mourtada rek la mooy li mu daan dénkaane lu mbooloo mi bari bari ci bitim réew ak lu mu xumb xumb ak lu ngan ngi neex neex li mu daan wax rek mooy góor góor lu ci ndigali suñu boroom yi wattandiku tere yi loolu nag damay wax toujours ne boo ko waxee ku bëgg lu gën a gàtt loolu lu gën a gudd loolu looy day xaw a gàtt ci moom te sëñ Tuubaa ni mu waxee ne nit ki bu taxawee ñeenti tomb rek ko wër li ko sunu borom digal ak li mu ko tere ak li mu bëgg ak li mu ragal mm-hmm. mu wax ne boo jógee jëm ci li la sunu borom digal li nga bëggoon te doon ko wuti day jàkkaarloog yow ne la jërumaa xoole noo bokk fu nu jëm mm-hmm. li nga ragaloon te doon uh, mu ne ci sa gannaaw uh, da ne la jërumaa geesoo bokk na fu nu jëm mm-hmm. loo xam ne nag boo jógee jëm ca li sunu borom digal uh, boo jógee jëm ca la nga bëgg danga nga moom la nga ragal doo dajeeg moom euh, loolu lu mat di fàttali la waxtu bu nekk. Mm-hmm. murit moom du dara lu dul a ah, jëfe ndigal rek bàyyi tere mm-hmm. ndax bi na daf daan wax ne mm-hmm. ak Baye Fall yomb na nee na tudd yàlla sàmm say cër liggéey jox yàlla nee na ñett yooyu moo doonoon ak Baye Fall daal di wax ne yéen ñi nga xam ne yéen yéen ay doomi kilifa yi génn na ngeen góorlu ndax foo xam ne koo xam ne kii fu mu dem góor ña sukk seeni woom la sukkuloo góor ñu kat tëdduloo na seen doom yu jigéen yi kon doom na ngeen fu ngeen dem yóbbu leen fa ngor ak jom waaw jigéen ñi yéen itam daal di wax ne na ngeen góorlu ndax xomb loo xam ne caabi ju ne mën na ko ubbi ngor ak jom rek koy tëj a ngeen jëf wasalaamaaleykum Euh, tubaarkalla jërëjëf di ñaanal bu baax sëriñ Fallou moom Cheikh Mouhamadou Mourtada suñu borom doole ko fa yàggal bu baax a baax waaye di ziar baax sëriñ euh, Mamor Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada nga xam ne mooy xalifam di ñaan suñu borom doole ko fa yàggal baax ak mboolem njabootu sëriñ Mourtada gi yëpp waaye xam ngeen ne jotaay bii fii la woon ci bërëb bi lépp rek ngir ni ñu ko waxee léegi di jégalu bu baax ndax ñu ngi wax sax màggalu Ceyeen waaye eh, ci lañ génn léegi xëy na suñ xel génnagu ci ba tey moo tax waaye màggalu deqale lay waajal eh, ngir rek eh, wàccaay woowu nga xam ne xam ngeen ne groupe Lamp Fall saa su ne dañ ci taxaw taxawaay bu am solo tax mu ñëw nemmi ko si bërëb bi waaye tamit ñëw gën cee waxtaan ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii te ñu bokk ak ñoom liggéey bi loolu moo sababoon jotaay bii tey mu waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall waaye dégg ngeen li mu wax lu am solo lepp rek ngir waajal maglu dekk li nga xamne at mu jot mo koy taxaw taxaway bu am solo mhm. liggéey bu am solo yamale mhm. ko si euh, bara bupp euh, mhm. maam moo ànd sali bi waye te euh, dundalat dekk bi nga xamante tane dekk bi sax mu ngi dundu bu baax a baax dundal ko bu baax a baax rek ci juma ki yeneen yi ni demé manam di projet bu am solo bo xamanteni mom seigne fallou seigne Mourtada mu ngi fay def te ànd ak mbokki taalibe di ñaan bu baax a baax borom kattanal ko mu yeggale ko ci jàmm Eh, ba naal yeneen di naal ci barke maam Cheikh Ibrahima faal maamam ji barke Cheikh Modou Sa Fall maamam ju baax ja eh, kon eh, sëñ maam Cheikh xam naa dañuy daal di tàbbi nag mhm. ci jotaay bi waaye dafa wax lu am solo xam naa loolu lañuy njëkk ubbe jotaay bi moom mhm. dafa wax ne Cheikh Ibra daana wax ne ak Baye liggéey sàmm say cër mhm. tudd yàlla tudd yàlla <laughs> defe naa ñett yooyu de moom ku ko boole defe naa da nga mën a tënku ci njàngaleem Cheikh Ibra ba pare da mën a mucc ci li ci jamono ji waaw jërëjëf sëñ Mamoun. Mhm. dafa mel ne sëñ bi. Mhm. dafa résumé yoonu murit. ci ci yaari kàddu yi nga xam ne ci la ko sëñ Touba tënk. Mhm. muy liggéey ak yàlla. loolu rek mooy li sëriñ tubaa woote woon. mooy li taxoon maam Cheikh Ibrahima Fall wuy ji ko. mu ne wala ak akbaru. sikar moo gën a màgg. ñu ne sëriñ bi lu tax mu ne wal khabla wala tujadilu ahlil kitab dem leen ci li jitu wala tujadilu ahli kitab ci alquran te da ngay fekk suñu borom ne wala shukrullahi akbar sik tuddu yalla kat mo gëna mag màgg te sëriñ bi daana wax ne na ngeen xam ne seen jëm seen gémmiñ yi bi ko yalla bindé du lek gi ngeen ci def ak naan gi moo tax mm-hmm. bind ko mm-hmm. waye li tax yalla bind ko mooy ngeen di tuddu yalla laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te loolu dara gënu koo màgg mhm. tudd yàlla julli ci mhm. yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax inna allaha wa malaikatuhu mhm. yusalluuna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yoo xam ne nag yàlla mi bind ñëpp te tànn ka ca gënal loolu la tànn muy liggéeyam bi jëm ci moom ah. ku féetewoo loolu féete nga li féetewoo nga li gën looloo tax ku tedd gi daan wax ne bi ma gisee kat ca yow ma alastu mhm. suñu borom wootee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. wuyu mhm. ma gis ne kon jiitu na topp ci moom a des nee na ma tànn li nga xam ne moom la suñu borom tànn féete ko ci liggéeyal ko ci boo xoolee ba yitu jës bu woowu kon dañuy wax ne kon moo njëkk ci mbindum sëñ bi ndax ci lu jiitu jëmm yi di am ci la yaa rabana salli ala man xat ajaaba di bala, ma alastu nak la wax awwala khabla mm. shawi takalumi ci jitu yonnati bi alayhi salatu salam di tontu bala mm. mun ci la tambali tag yonnati bi xamne lolo fi dess ci ligue kon moy tuddu yalla ci mm-hmm. bi ci dess moy ligue mm-hmm. ligue bi itam gannaaw sunu borom daf no tan mm-hmm. jël dooma adama def ko muy khalifatullah fil ardi ci niñ ko dikke ci histoire naa ñu résumer ko ci bi muy tànn maam aadama wax malaayika yi ne leen maam aadama seen maam aadama kat maanaam euh, doomu aadama laa bëgg a def muy xalifa xalifatullahi fil ard ñu ne ko xanaa du ñooñu nga xam ne dañuy tooñ ak a tuur ak a def soobe ci kaw suuf si rek mu dajale leen ci benn examen boo xam ne li Seydina Omar daan wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko suñu borom daa far waaye kum faral nga jàll. dëgg la loolu la ca jëfandikoo. Mhm. ndax dafa jël question yi mu war a posé yëpp. Mhm. xamal ko maam Adama ba pare jox ko réponse yi. Mhm. xamalu ko malaayika yi. boo pare nag boole leen dajale leen ci benn examen. maam Adama mën a tontu te ñoom mënuñoo tontu. ñuy xalifatullahi fil ardi kon dafa am mission boo xam ne moom lañ ko war a defal ci kaw suuf. kon Serigne Fallou daf ñoo delloosiwaat ci liggéey boobu. ñu liggéey boobu moo nu war waaye liggéey boobu tey bu fekkoon ne dafa am moniment mhm. bu koy symboliser mhm. tey mën nañ koo wax ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouride mhm. parce que euh, moom dafa dundee ci jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ak liggéey maanaam aw doxinam ci liggéey du loo xam ne daf koo théoriser waaye dafa loo xam ne daf koo jëf dañ ñi doon aw ci yoonu jëf ñëpp upp seen i gémmiñ xam ne Cheikh Ibra Fall àgg na ci foo xam ne deesatu ko ci jot kon xam naa loolu lañuy ñuy tàmbalee ci wax <laughs> tubaarkàlla <laughs> jërëjëf sëñ maam macha allah fi mu ubbee am na solo sëñ Aline Badara lool sëñ maam mm-hmm. moo tax ñu ne dañ ko doon namm bu baax a baax wax dëgg yàlla mm-hmm. ngir xamal ni euh, mun nañ ni lii euh, Serigne Touba Khadim Rasoul mm-hmm. def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko dànn rek maam Cheikh Ibrahima Fall noonu la def Serigne Touba Khadim Rasoul ko dànn rek léeg-léeg damay damay damay wax naan moo taxit di gis nga li ko Serigne Touba defal. Mm-hmm. ndax euh, léeg-léeg mu faral naan foo ne laa ilaha illallah. Mm-hmm. muhammadu rasulullah sallallahu alayhi mm-hmm. di ko wax naan war a faanaa la nga dëkk rek. boo fu ñu fu ñu tuddee sunu borom rek faaw ñu teg ko si. waaye moo moo dal moo dal maam Cheikh Ibrahima rek. foo gisee fu ñu. fu ñu tuddee fu ñu tuddee Serigne Touba rek moom nga siy teg <laughs> waaye Serigne Touba fu ñu ko tuddee maanaam teg si yeneen sallallahu alayhi wasallam ndaxte mm-hmm. xaadimu rasulullah moom it gis nga ni ko ni ko ni ko ni ko yenent bi def boo ses si moom mm-hmm. mu doon kon benn continuité boo xamante ni mm-hmm. waaye lépp rek ni nga wax euh, delluwaat si maam ak ni mu tënkee euh, nu mu tënkee maanaam euh, ni mu tënkee boppam ci wàllu liggéey waaye li gën a yéeme mooy ni mu ko tënkee maam mooy daf ko def si loo xamante ni maanaam ci euh, ci ci ci ci ci ci ci lu lew mhm. ak si noo xamante ni mu ko organiser mhm. yaakaar naa ni kenn mënu cee euh, kenn munu ci cee euh, jaar mhm. ba bëtt wala dafay neneen mun nañ si jël benn exemple rek xol si jamonoom nga xamante suuf ni ko nit ñi doon xëccoowee waaye da ngay ñëw rek gis benn fàkk rek daal di fàkk rek daal di dëkk noonu bàyyi mhm. waaye moom gis nga su ñëwee mhm. mun nañ wax di dafay topp processus bi mhm. mun nañ ko tuddee suñu jamono ji wut géomètre mu ñëw saytul ko suuf si wut ñeneen ñi nga xamante ni xëy na euh, papier administratif yi et cetera ba ni mu koy defee titre foncier loolu yëpp ñoŋal ko ba tey jii nii soo xoolee loolu ba léegi mu ngi topp mboolem njabootam kon ku jekk woon jamonoom la waaye li mu doon liggéey it koy teg si noo xamante ne xëy na euh, ci si xam dëgg la ko doon jiitale waaye lépp bu ko ñongalee ba noppi da koy jëbbalaat sangam ba rek euh, Serigne Touba Khadim Rasoul mi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy léppam macha allah jërëjëf sëñ ba dara loolu xam naa euh, mel na ni sëñ maam dina ci gën a mën a yaatal ndax ndar firndeel la ci la fa Cheikh Ibra amoon ci suuf kenn amu ko fa dakaru gi lim fi amoon ci suuf kenn amu ko fi. Thiès noonu daru bayre ëpp ay 1000 hectares. tey jamono ji na ca jamono jojo ne defana ci la këyit gënoon a jafe. dëgg la Cheikh Ibrahima daraan signé. waaw. dara wax nañ sax signature nim daan mel. ci jamono jojo bi ci dess itam moy nitu adni yim nekkalon itam. da leen a respect. dara daaw dox seen digënté jamono ji gis nañ. lu bari fi ne. ci da nga gis sax ko xamné da nan bàyyi la sax. mais day xët day jéggi day maanaam luwaa daal mm-hmm. loolu du ñàkk xëy na sëriñ bi dana ci dana ci gën a mën a indi ay leeral sëñ Alioune Badara lépp rek wone ne mm-hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall du caageen ne man Baye Fall laa lu ma neex def waaw lu ma neex wax nangam mm-hmm. te moom daawu dunde loola léppam da ko tegoon ci yoon moo taxoon mu mënoon a nekk ak doomu aadama ak benn organisation bu yéeme. Mhm. nga xamante ni kon yaakaar naa ne xel la doon jëfee. Mhm. mais ñi mu yaroon it da mhm. si si si jëfee xel la leen tegoon. boo ba moo tax ku si nekk yaa ngi doon liggéey liggéey boo xayin da da da lay wóor ni liggéey liggéey bu ñoŋ loolu. waaw signal yun li nga wax bu fekkee ni bëgg nañ ci indi ay leeral. faaw danañ delluwaat ci. roy gi nga xam ne moom la njaboot gi war a roy maam Cheikh Ibrahima te yit loolu da ngay fekk ne kon Serigne Touba dafa roy yonnati ali sallallahu salaatu salaam. ali sallallahu alayhi salaatu bim mhm. bi dafa am yoon wu ko sunu borom tek mhm. ba ci millata ibrahim hanifan mhm. kon yon fekkoon yoon wo xamne sunu borom nam nako te rafal lu nako ba tax mu joxoñ ko ba ñu top ci non lañuy doxé euh, bokku na ci ci doon indi tuti ci histoire. ngay xol yonnati yalla musa Mm-hmm. ci li am ci ay garaat mm-hmm. ak li mu am ci tolluwaay mm-hmm. ndax mën nañ ne bokk na ci xakkadun cent vingt quatre mille waaye bi ñu ci bokkee ba noppeet ñu examiner leen génn ci trois cent treize bokkaat na muy janeen daraja muy ñaar euh, ci biir euh, trois cent treize cinq yi suñ borom tànn mu bokkaat ci loolu muy ñetteelu daraja bi ñeenteel bi mooy euh, bi ñu tànn ulul mi euh, man na ne boo tuddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudd Seydina Ibrahim mm-hmm. moom nga ciy teg mm-hmm. muy beneen daraja boo xam ne mi ngi ci yonent yàlla Moussa mm-hmm. waaye mu am ci beneen taxawaay boo xam ne bu doy waar ndax alayhi salaatu wasalaam li muy gën ñëpp terewul sunu borom daf daan yónni Seydina Jibril ci moom waaye Seydina Moussa alayhi salaam moo amoon di deg sunu borom ci kàllaama ci luddul mu yebal kenn ci mom mm-hmm. nga xam lu bari ci ak mom borom mom lay waxal bokku na ci bi duggé ci xuru sel wi tam sunu loo koy dàllam bokk na ci bi ne sunu borom sa kaddu gi waye sa jëm la bëgg gis taxaw ñeen fukki fan di ñaan mm-hmm. sunu borom xamal ko nako lool du lu mm-hmm. danañ feñal dara ci doj wi ko yoonte yalla musa seeni dafa tiit ba daanu xam ñeen fukki fan yu toll na yam fa toogoon di ñaan doj weet leeru suñu borom googu da koo tiital ba mu écrasé def doom bi mu jógee li mu njëkk a wax mooy alaana tubtuwaa naa bi abidina maa ngi lay tuubal te di la xamal ne maa jiitu ci ñi lay jaam waaye nga gis ne daraja yu yëpp bi mu ko amee Firawna doon jëmm joo xam ne ju ju ju ju xeebu la ci ay jëf yoo xam ne dem na bay wax ne ana rabbukumul ala ak yeneen ak yeneen tëkkale mhm. boroom boppam ak boroomam mhm. ci ak umpule ak réer mhm. waaye terewul yonent yàlla Muusa bi ko suñ boroom yabalee ci mu dem dajeeg Firawna boole na ca kàddu yam ko yabale woon ne ko boo waxee moom na nga wax ak moom ci dal ak kàddu yu nooy nga xam ne kon yàlla mi bind jaam yi mu njëkk respecté jaam yi kon nit ku ci roy ci yoon woowu nga war a jaar ndax foofu lañ jaarale yonent yàlla Muusa loolu Cheikh Ibra Fall daf koo roy mooy xam nañu ne jamono yi nasaraan si di teg loxo ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mm-hmm. dem leeral ci Achiru Maal Abraar mm-hmm. ne dafa nuuru ne ñoo ko teg loxo jàppe ko mm-hmm. prisonnier waaye ku ànd ak ñoom war a liggéey yi la te liggéey bi war a jaar ci seeni loxo xam gu mu xamanteeg Cheikh Ibrahima Fall ak déggoo gu nu déggoo taxoon na Cheikh Ibrahima Fall xam loolu ba fetalul jihaad na ko ñu jiitu woon defe ndax dafa xeex xeex boo xam ne du xeexum ngànnaay waaye dafa dem ba lëkkaloog ñi nga xam ne ñoo tudde ne noon ni sëriñ bi lañ ba gis nañ ay qualité ak melokaan woo xam ne ci Cheikh Ibrahima Fall wóor na leen ne kon yëkkati sëñ bi njuumte la ndax gannaaw ab dongaam a mel nii ci jikko aku melokaan kon nan la sëriñ bi war a mel ci loolu la jaar ci diplomatie ak yeneen ak yeneen ba nga xam ne juridiquement financièrement li sëriñ bi soxla woon ci bitti ba mën a lëggéeyal borom moom dellu hmm. loolu yàlla nga ko jaarale ci loxob Cheikh Ibrahima Fall kon hmm. Baye Fall bu nekk war nga ciy roy war nga ciy roy ah. la sëñ bi xam muy xamal ne bu fekkoon ne jamono ji la tey ñu ne hmm. jël nañ sëriñam yóbbu nangam da ngay gis ñu mbëkki tabaxa mbëkki miir ak yóbbu Cheikh la bi ñuy jëlee sëriñ bi fii di ko yóbbu amul benn bruit comme ni ko sëñ bi waxee bu mu def kenn yëgut dara dara coow amul te fexe na ba lijjanti comme ni ko sëriñ bi waxee ba delloo bañ delloo siwaat sëriñ bi eh, fii eh, ci biir réew mi te lépp ci xelam la ko doon doxee ak loolu kon jot na Baye Fall yi eh, tënku roy ca loola wane ne kon maam Cheikh Ibrahima Fall moom yi xew léegi ci jamono daal dama defe ne xanaa seen xalaati bopp la wala li ñuy wax seenu xeruk bopp waaye gisuma daal fu ñu ko jànge ci la mag ngi nettali wala ñu jot bind ci Cheikh Ibra sëñ leen ba dara sëñ Mamour mhm. sëñ bi jërëjëf dañ koy santaat bu baax ndax cest à réflexion maanaam mhm. ni muy ni muy ni muy tëralee mbir mi mhm. dafa am dafa dafa leer ba pare dafa dafa am cohérence daal dafa dafa am dafa tegloo lool euh, ndax ndax ndax liñ si déggee mooy maam Cheikh ba muy ba muy moderne maanaam ba muy euh, ba muy dund suñu jamono ji boobu yaakaar naa ni yàgg na trop ay ay eh, jege na téeméeri at wala mu mu weesu ko maanaam fu mu tolloon suñu jamono ji ñun lañ fay doog a toll toll si wàllu diplomatie si wàllu intelligence si wàllu management si wàllu eh, économie ndax xam nga am na benn tubaab dama koy faral di wax léeg-léeg boo xamante ni du mu ko tuddee woon mooy euh, ministre de de ministre de de de de l'économie du du mouridisme ministre de l'économie jekke woon <clears throat> àdduna si wàllu koom mhm. waaye jamono ji muy def béyu ndër euh, tasinaar gànjool sëñ sëñ maamu jàmbur mhm. maanaam mbay mu am solo boo xamante ne ay mhm. légumes ak nu mu ko organiser mhm. ni mu organiser woon ñi nga xam ne ñoo ko waroon si ay euh, taalibeem si si ndar da ngay dégg léeg-léeg ñu naan am na fa lu ëppoon fukki boutique si jamono jooju ay magasin euh, ñi nga xamante ne dañoo dugg si euh, maanaam système tubaab bi di leen liggéeyal mën a jaxasoog ñoom ak ak ak yu baree baree baree wax nañ fi sànq wàllu suuf si ak ni mu nekkee woon si capital yi te loolu yëpp amul lenn loo xamante ni def na ko ci pas-pasam si Serigne Touba. Mhm. def na ko si pas-pasu ñi mu njaboote woon si jamono jooju si taalibe njaboot yi. Mhm. waaye amul dara loo xamante ni. Mhm. Euh, yàqal na ko nu mu war a mën a doxee. addunaam bu baax a baax waaye lépp ba mu ko jekkoo ni ma ko waxee woon. Euh, Serigne Touba la ko dellu kon Mamoun ni nga wax dafa am solo te sëñ bi dina si ñëw. mooy euh, tey jii bu ñu xëyee. Cheikh Ibra ni mu doon doxee jot na ñu mën see delluwaat bu baax a baax roy si. suñu xëyee ba ñenn ñi fokk ni. wala gis yenn doxalin yoo xamante ne dañ koy moomale Cheikh rek mhm. ñun ñun daf ñu xaw a jaaxal lool lool lool mhm. ak taarix li mu wone nu mu wuteek maam Cheikh Ibrahima Fall ni mu doon doxee mhm. loolu daal euh, xëy na jar na jar na jar na taxaw seetlu te leeral bu baax a baax sëñ maam waaw xam nga sëñ maam loolu dana ci mën a dikk bu baax ndax li tax mooy dafa feeñ fi ne ci jamono te yegsi na ci eh, ki ko war a wax moo toog di ko wax eh, la Baye Cheikh Tall Galo waxoon nag xam nga jamono ji moom neexut a wax mooy waame bu jógee ca tund wa di wal jëm ci déeg bi mhm. lu mu romb dana ko indaale mhm. waaye Cheikh Ibrahima ne ko mhm. ndox buy dem ndox rek lay yóbbu er- kon nag jot na ñu fexee doon ndox ndax kat bu dee xeer wala bant wala perméable it bu ngiisee fa lay des <laughs> xam nga jamono ji moom koo ne bokkoo ci mu gis boppam koo artu it wala nga wax ak moom mun la gënoo ma koo doon waaye ki ko doon nag nu muy mel sëñ bi waaw xam nga sëñ maamoom Euh, li nga wax jëmee ko ci ni Baye Fall war a mel mhm. ak ni mu organisé woon ci wàllu dëkkuwaay ak fi mu jaar fépp mhm. loolu da nga koy delloowaat tuuti ci cosaan mhm. ndax dafay bëri loo xam ne boo ko jàngatee ci imagination loo xam ne da koy imaginer rek sama xel man ngaa jort lu demewul noona wala nga wala nga jort lu weesu fi nga ko tollale fekk weesu na ko bala ngay wax loolu da ngay xool ci ban environnement la maam Cheikh Ibrahima Fall ne hmm. ndax Cheikh Ibrahima demut ba toll ni mu toll hmm. soo ko mat li mu doon hmm. maanaam ñaare ñi yàlla tànn ngir ñu defar ak jiite dafay def ci ñoom ak mat lu jiitu seenu ñëw lu ñu leen di programmeel la waaye duñ ñëw ba egsi ci jamono rek soo koo jàng ci ay xel ak yu ni mel boo xoolee huwa allazi yunazzila ala abdihi ayatin bayinatin li yuxrijakum mina sulumaati ila noori nga xam ne suñ borom ñu womatee jaam bi li mu ci jublu mooy mu jógeel ko ci ak lëndëm jëme ko ci ak leer loolu itam mën nga ko indi ci beneen aaya laxat kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima wallazina maahu mm-hmm. bu la neexeet mën nga ko indi ci laxat la lakum fi rasulullahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmil axira wa zakara allahu kasiran ci sooratul ahsaab nga xam ne kon yonent bi dafa jox ñi nga xam ne ñoo jiitu sunu borom ay tegtal ci yoo xam ne ci lañu war a mën a jaar Cheikh Ibra boo ko tàmbalee ci fi mu toll ci ay at ci bi mu wuy si sëriñ bi nga xam ne am na ñu wax ne vingt-sept ans la am ñu wax ne ci diggante boobu la mhm. eh, kon bi mu fay dem ndaw la waaye tey boo miinee mhm. ci fi nga xam ne fa la Cheikh Ibra Fall cosaanoo mhm. loolu lu màggaale la ndax ñu bari dañuy umpule jàppoon ne maam Seynabou Ndiaye dafa nekkoon koo xam ne da doon dund ci milieu ceddo ba tax na ci loolu Cheikh Ibra Fall nekkoon te déedéet ñu bëri xamuñu ne maam Seynabou njaay moo jàngal maam Cheikh Ibra Fall alxuraan moo jàngal maam Saliou Fall alxuraan. jàngal leen itam téere xam-xam yu bari. ndax boo toppaay càllalaam mooy dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. am Zeynabu Njaay. Cheikh Ahmadou Fall Roqaya mi nga xam ne mooy waajuram mu góor. Mhm. xam ne yàlla dafa defoon wéré di amoon ci moom mu dëkk si kër ni ci njare. Mhm. foofa la toqee Cheikh Ibrahima Fall fa la màgge. wax nañ ne itam ci yooyu jamono. Cheikh Ahmadou Fall làqoo. maam Cheikh Ibrahima Fall daan ñëw dëkk bu ñuy wax Ndaay Fall. ndaay kër googu yeesalaat naa ko def naa fa daara ba liggéey baa ngay sori. ndaay ndaay Fall. Mm-hmm. moo tax ngeen di dégg borom tugg ak ndaay tugg mooy tasineer gànjo mm-hmm. ñaari kër yooyu bu ci ne maa nga fa ci sànce boo xam mm-hmm. ne dama koy liggéey ngir symboliser la fa maam Cheikh Ibra Fall bàyyi ndaay fu mu nekkee ndaay mi ngi 7 kilomètres de Kébémer ginnaaw cene ba Kajoor doyul ñuy nettali ne Cheikh Ibra am na lee am na lee waaye kenn ku ne dafa am laf woo war a jàpp ndax lu kenn bàyyi woon mbooloo seq ko te sottiwul war nañoo xoolaat ñoom seen doxin. bi ma xalaatee loolu nag laa ne soññee bi li ci jiitu mooy nga teg ci sa loxo nekk ca. ba bu ñëpp defee ne yow mbaa li ëpp. mu sotti fa ko Cheikh Ibra bëggee danaa ne <laughs> ah, noonu Cheikh Ibra du dox ci hasard fu mu mm. teg loxoom rek yàllaa ko ko fa teg tegloo mm-hmm. ndaay googu wax nañ ne bi muy toll ci fukki at ak nàngam mm-hmm. dafa daan ñëw ndax ay bokkam a fa nekkoon mm-hmm. waaye dëkk bi joxuñu ko woon bopp ci yooyu jamono ndax ñàkkoon koo xam ndax ñàkkoon koo xam waaye dem na ba njariñ lim leen amal tax ñu jox ko bopp am na góor gu ma nett ne ma bàyyam nee na ko ndaay mhm. faal bu fa Cheikh Ibra masaan fanaan si mhm. li xamal waa dëkk bi ne Cheikh Ibra agsi na mhm. boobu Ibra lañ koy wooye wala yëpp saxaan ci nee na li xamal ne yegsi na bu fanaanee ci dëkk bi ku ne néeg sànq la ñuy dox ci romb bi da koy seen ngir ak leer ñu ne yëpp sa fanaan si na te dañ koy yàkkamti nee na boobaat gas fa am ndox dafa jafe woon amum ndox teen yi di dëy waaye noppal gëm leen daan noppal daana tax ñu yàkkamtee gisee ma ndax bu masaan xëy bu këddaa tànkam ci suuf ndox day ball ba wër ko ku ne indi say dab ak jumtuwaay ya nga am root ko dellu kenn dootul dem jateen teen njariñ yooyu daan daana tax ñu bàyyi ko xel mhm. kon Cheikh Ibra demul ba toll nii mu toll soog a am li mu am wala mu man li mu man mhm. sunu boroom a ko waajal démb ni mu mhm. waajalee gaa yu baax yi ba nu ñëw mag ñeet wax nañ ni suñ masaan rëbb bi ba dajale ko daa wuti nangoo lekk waaye bu ñu masaan noppi ba teg ci der yi bu ko wéqee rek rab yi dawaat dugg ci biir àll te loolu ba mu koy def Cheikh Ibra Fall amul ñaar fukki at booba nga xam ne ñëwagul ci sëriñ bi hmm. boobu dikkagul ci sëriñ bi nga xam ne kon ñoom ñaar hmm. kii daa yor yëfam toog fee hmm. ñu luñ bokk di réera di di nëbboonte ba gisee jot gindi jaam ñi ñu mm-hmm. bokk gisee mm-hmm. waaye ku ci ne ak mat ngeen ñëwaale jamono mm-hmm. nga xamante ne ñoom seen gisee sax si ndigalu suñu borom la ci ndigalal suñu borom la ndax sëñ Moussa ko wax na la ko ne mas nay xibaar ak jébbuloom bay wax na yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom rasi ko jox ko say pexe kon euh, moom tànnul bëggul dañ koo tànnal bëggal ko ba waxtu jot rek mu feeñal ko tubarkalla <laughs> jërëjëf sëñ Mame si yàlla badara indil lu am solo waaye xam naa euh, xam naa sax dinañ ko def sax day day mel ne day doon sax ñaari parti mhm. euh, bu njëkk bi moom mooy fi ñu ubbee mhm. mooy ñi nga xam ne tey dañoo yaakaar Cheikh ra gëm ko mhm. wala ñu ne dañ koy roy donte ne sax xëy na feneen lañ bokk waaye dañoo jug ngi roy Cheikh Ibra euh, te xamuñu yoon wi nga xam ne fa la tegoon tànkam umpale nañ ko wala dañ koy royee ci nañ ko jekkoo ñoom xam nga bëri na ci jamono joo xam ne fi ne secteur bi kenn ko ne na nga ko jekkoo na nga koy dundee te nag dafa am ay sart am aw yoon nag te Cheikh Ibrahima daa joxoñoon yoon yoon laa woo xam ne jub naa kocc yaa naa ŋay yëgg naa rek soo soobu te yëggoo yaa duxul xam nga loolu leer na ku réer yaa jàdd kon ñooñu moom am na fuñ mën a am na fuñ am nañ fuñ tegu léegi nag am waaye nag am na geneen kuréel nag xam nga ñaari kuréel la am na kuréel googu moom dañoo umpale wala dañoo réer mais am na kuréel goo xam ne ni nag sëñ bi moom xam naa ne umpale wuñ moom <laughs> eh, eh, réeruñu it wala boog réer bi mën nañ ko waxee neneen <laughs> maanaam dafa mel ne. dañoo mhm. dañoo neexute dimbali. te mhm. Cheikh Ibra waxoon na gunóor. Mhm. bu jubal taal bala mu am jàmm da caa tàbbi. <laughs> te nit ñi waaw. Cheikh Ibra ne gars yi dañoo naqaree dimbali. nee na seen xool bi daa mel ni gunóor. dimbali naa leen ba tàyyi waaye fu ñu gisee safara bala ñu am jàmm dañ bi te du leen jib. daal ne tey ngeen a ñëw ci sëñ Bamba mi ma lañ joxoñ ñooñu sëñ bi du ñàkk loo xam ne faw nu wax ko ñoom ndax. war nañoo dégg Cheikh wala bok war nañu fekk ci cheikh ibra wala war nañ ko roy ndax seigne touba moo ñu ko joxagn wala mo tax fi jamono toll mënu ñu comprendre cheikh ibra wala xam wuñ ko comprendre sax laay wax waaw mhm. jërëjëf sëñ maamu loolu yàlla mi bind jam ni moko ko doxale noonu mhm. ndax boo xoolee ne allah ala xulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisaw manam mhm. ñi nga xamne yalla daf leen bind ba pare encastrer seeni xol ani dañuy gumba fi ne tay man nga wut bol mhm. wala ndap nga dem ci geej guddu ko ba fess mhm. waye fekk nga fa xéer wo fa def jooni at te munu caa nan ben litre mhm. yalla dogalu ko ci mom te mo ndox me dekk waaye du ko lolu nak liko sabab moy, dafa am kilifa gu ko mas a wax ne mom bëgg no mu bëgg sëñ Tuubaa daal fees na xolam waye liko jaaxal moy ñak ge bok te lolu liko sabab moy xamna ne sëriñ Tuubaa du ko woowut wërtu wi léegi nag ki nga xam ne daa bokk wuy si ak ki nangu ak ki nga xam ne saay-saay bu féeteerlu la mm-hmm. ki réer moom sawara rek moo koy gindi mm-hmm. ki nga xam ne suñ borom da ko bind ci safaan bi mm-hmm. te bëgg Cheikh Ibrahima Fall di ko fa jële di ko yóbbu àjjana du mën a bëgg Cheikh Ibrahima mukk loolu sabab la ci te it kon kooku daa dafa amul ndimbal te it jaam ñi suñu borom wax naa ak moom ci none yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax dafa wax ne euh, innama bu'istu li utam ni ma makaarimal axlaax daal ne man de yàlla moo ma yónni ngir ma mottali te tedd ngay jikko yi muy dem di dem nga xam ne bi mu ko yónnee mottiloo ko loolu daf koo jëfee fa prouver ba suñ borom di ko wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin yow daal yaa tedd ay jikko yaa ko rafetle yaa gën a kawe sax jikko ju màgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, loolu bi mu amee ku mel ne sayyidatina Aïcha bi ñëwee laaj ko lan mooy jikko yonent bi dafa wax ne lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi mu tontu leen ne leen kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama xuluquhul alquran quran maanaam jikko yonent bi mooy alquran lépp lu ngay gis ne alxuraan tagg na ko bëgg ko rek mooy jikko yonent bi lu ngeen gis ne alquran bañ nako ko ko lolo moy li yonent bi bañ moy lim ŋàññi ko motax euh khushil afa bil afi wa a'rid 'anil jahilina mu ne ko li nga xamne nak moy ki moy del del balé tay digle di moy way réer ñi ali sallallahu alayhi wasallam daay koy tekkil góor gi ci benn aaya ne ko huwa antazil man xataaka wa tuuti man xaramaka wa taafu aman zalamaka ne ko del jokk ku la dog del jox ku lay xañ del baal ku la tooñ loolu bokk na ci jikko yi nga xam ne moom lañ gën a xam ci Baay Faal ah. moo xam ne da koy dëkk ci di ko tooñ mhm. te du wëlbatiku mukk du fayu mhm. te saa yu amee njekk yéene la ko jéggal ak boo xoolee ku mel ne Ibnu Abbas mhm. mu ne illa ya rasulullahi alayhi wa sallama mata kuntu nabiyan xaala wa aadamu bayna ruuxi wal jasad nga xam ne mi ngi wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam li ma la nettali léegi laa lay dëggalal ci maam Cheikh Ibrahima Fall ne la ba muy ndaw la mat li mu doon nga xool kii li mu wax ne yonent yàlla Muhammad nga xam ne mu mujj ci yonent yi abul bachar di aadam mi nga xam ne moo jëkk ci yonent yi yonent bi alayhi salaatu salaam wax na la ba may nekk yonent mm. booba aadamaa ngi ci diggante ruu ak yaram kon buñ leeralee ni Cheikh Ibrahima Fall bi muy mat li mu doon mm-hmm. jógagul wooteegul liggéeyul mm-hmm. loolu dana bokk ci li koy dëggal euh, <coughs> euh, ba tey moo sunu borom wax ne wa is axasna mina nabiyyiina miisaaqahum mm-hmm. minka min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa wa isa bni maryama wa axasna minhum miisaaqan xaliisan ci sooratul ahzab boo demee ci tafsirul jalaalayni dafay wax ne suñu borom subhanahu wa dafa wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko fàttalikul ne ñun yàlla jëloon nañ ci yonent yi seeni engagement ci engagement bu ñu an engagé woon ci suñu borom subhanahu wa taala euh, ci jikkoo ak taxawaay bi nga xam ne war nañ ko taxaw ci suuf mu ne waaye jël nañ engagement yu diis yu metti rawatina nag juróomi yonent yi di ulul asmi mm-hmm. waaye seen góor a ak seen jaayanteeg yàlla góor góorgóorlu nañ ba yooyu yëpp mat mm-hmm. kon loolu li ma ci bëgg indi mooy eh, noonu la Serigne Touba dikkee mm-hmm. ndax tey boo xoolee ku mel ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, ci dañuy dikkaat ci jikko yi rek yi nekk ci jamono ak li sëñ Mamour wax léegi eh, ci roy gi ñu roy maam Cheikh Ibrahima Fall te léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy jàddaaw yoon nga xool ci aj gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj aj mhm. bi mu dajalee mbooloo mi arafa mhm. yim def mooy yoo xam ne bu ko nit ñi toppee mhm. am njëriñal àddina ak alaxira yim contraire yooyu nga xam ne moom la leen tere mooy li nga xam ne bu ko nit ki jëfee mu ngi ci aw ñaawteef muy daf leen a wax ne na ngeen bis ne ka tey kenn ku ne ci yéen na wormaal moroomam ci dereetam waaye ci alalam te bu mu ko nax waaye ci bakkanam itam ak hmm. seeni alal dénk bi mu dénkaanee ba noppit dafa wax ne hmm. lii ma leen dénk ndax jotal naa leen yonent bi yàlla ñu ne ko waaw ba muy ñetti yoon hmm. mu ne leen ku fi nekk te jot yonent bi na nga ko jotal ñi nga xam ne ñëwut ndax mën naa nekk ne kenn ci ku ngeen jotal yonent bi wax ji dana ko jëfe ci jëfin woo xam ne am na ku ko fekk te du ko defe noonu mu mel ne jotal googu nag ci Sëriñ Tuubaa xuusee ak lam ca liggéey mën naa ne la ëpp ñu ñu ko fekkee woon doxee wuñ ko noonu. noonu la rogalaate. ba agsi ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine. Ah, <coughs> ba agsi ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine. loolu nag eh, dafay tekki li sëriñ bi doon wax. ci Abul Yazid Bustami bi nga xam ne mu ngi julli fajar. nga xam ne bu bàyyam daan taxawal ak julli. daf koy dafay jóg daal di wàcc lal bi taxaw ko defee mun na ko demal tëddi ko nga mm-hmm. mu ne ko kon bu ëllëgee bu ma sama borom laajee mm-hmm. danaa ko wax ne sama bàyyi mooma daan wax ne demal tëddi gone nga loolu dal na Serigne Touba Xaadimu Rasuul mm-hmm. ndax wax nañ ne bi muy tuut tànk te daan nekk ci soxna jaariyatullaahi léeg-léeg soxna jaare daf daan wàcc lal bi di julli mu jóg taxaw ci wetam di jullandee ak moom te booba kenn togg ku ko jëf mesureagul mm-hmm. noonu itam mooy ni nga xam ne moo dikkal Cheikh ma fa mm-hmm. nit nag bu fekkee da koy roy te di ko topp mm-hmm. da ngay jaar ci yoon yu mu jaar bu fekkee ne bëgg nga koo fekk fam ne waaye bu fekkee ne dama laa tàggu ne la maa ngi jëm Touba nga di ko topp <coughs> te jëm ci ganeen wet gu dul tuubaat dox sore bi mën naa gën a yokk ak réeroo gi waaye gise gi du yomb daf di Eh, dafa am ku mas a ànd ak Lat Joor ñëw ci Serigne Touba ne ko dama lay jaay ñetti dëgg ci li sëñ Mamour wax léegi ci ñi nga xam dañoo féeteeru mhm. Serigne bi ne ko gu ne loo koy jaayee mu ne ko téeméer mhm. dëgg gu jëkk gi mooy mhm. li nga bëgg ci yonent bi lépp mënoo ko am Serigne bi ne ko ndax lan mu ne ko da ngaa bëgg ñëpp gëm sallallahu alayhi wa sallam te loolu mënta ne faaw am ñu ko weddi mu ne ko mu sànni ko téeméer mu ne ko ganeen gi mooy lan mu ne eh, Cheikh Anta Mbacke li bëgg ci yow do am lépp mu ne ko ndax lan mu ne ko daa bëgg lu mu romb nga moom ko te mënta moom lépp mm. bi ci des mu ne ko Cheikh Ibrahima Fall dafa bëgg ku romb mu gëm la topp la yaakaar la liggéeyal la te faaw am ñu gàntal mu sànni téeméerub ñetteel eh, eh, eh, ñett dëgg yaa xam de tubarkal jërëjëf macha waaye ba tey danañ dellusiwaat ndax am na mm. benn buntu foofu boo xam ne mm. bëggoon naa ko leeral tuuti mm. léegi ñu dellusiwaat nag ci yoon wi nga xam ne ci lañ ne sax ba tey waaye gën cee yaatal ci biir mooy liñ bokk mu yoonu mu murit mm-hmm. nga xam ne gën nañ ne kenn mënu cee am lu ci Cheikh Ibrahima xamul waaw fi ma ko teg nag laay wax. sëñ Moustapha Mbar. moom sëñ Modou Aminta Fall yàggul ñu ngi koy ziar bu baax ak sëñ Fallum sëñ Modou Aminta ñoo toog bu yàggul bërki Dembo Ndiaye rek la. Eh, fi ñuy toog di waxtaan maanaam am sax xew-xew bu amoon ñu nekkoon ca. ne suuti sëñ Abdou Guèye maa ngi koy ziar bu baax a baax. doomi sëñ Moussa Alima Guèye la. sëñ Abdou Guèye daal di nuyoo sëñ Moussa di soññee ba agsi ci neex ah, suñu jotaay bii day mhm. am na lu mu ñuy fàttali mhm. ndax sëñ Modou Aminta day mhm. ak sëñ Fallou ak man mii day ak Modou Gueye mii yor orwaay Modou Gueye boobu mi ngi toog mu ne mas nañoo xëy suba nuyu sëñ Saliou fii ci biir kër gi sëriñ bi jox ñu café nee na ñuy ndékki suba teel sëñ Abdou Gueye mii toog ànd ak njabootam ñëw nuyu sëñ Saliou te jotaay ba sëriñ bi daal di wax sëñ Abdou Guèye ne ko na ngeen wëllërante yaag sëñ Modou Minta ndax kat seen kilifa yu baax ya waxtu yi daje nañ ko ci sëñ Touba ci njaarim muy sëñ Moussa Alima Guèye ak maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ nee na sëñ Saliou ñuy nett lii de sëñ Moussa moom ko wax sëñ ne sëñ Moussa Alima sëñ Touba daf ko doon sotti loo am mbind na ko ba ko xool nee na jox ko ko mu sotti ko nee na bi mu ko sottee ba dellusiwaat di ko indil ku tedd ki daje maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw fa. mais Cheikh Ibrahima gi boofu ci gannaaw sëriñ bi. Mhm. bi sëñ Moussa Alima joxee sëriñ bi mbind mi. Mhm. sëriñ bi ne ko ndax Moussa na ma ko waxee woon na ma la ko waxee woon defe nga ne ko. mu la defe na ko na nga ma ko waxee woon de. Mhm. nee na Cheikh Ibrahima daal di ne bëri ci gannaawam ne ko Moussa Alima yaa muus noo sottee mbind te gisoo ko. sëñ am Mbar tegal ma ci na ma loolu li muy fir li muy li muy firndeel mooy yoon wi kenn mënu cee am lu ci Cheikh Ibra Fall xam ah, tontu ne ko mhm. kilifa ga mhm. ndax sëriñ bi daf na ko nag ma sottil téere bi waaye bu ko xool ma mhm. ca boole bul xool mbind mi bul xool mbind mi ah, mel na ma jox la kaye ne la copier ma li ci biir waaye ko xool bi mu koy delloo si nag te ba mu ko ko jox fekk fa maam Cheikh Ibra bi mu koy delloo si nag dafaa fekk maam Cheikh Ibra maam Cheikh Ibra ne ko Moussa Alima ko Mbàkke mu ko yaa moos nooy sottee loo gisut mu na ko faal yaa ma gën a moos yow mi xam loo fekkewul <laughs> léegi dañu toll fi jamono toll <laughs> suñ maam seex mhm. am ñooñ dañuy wuyoo ak murit sax laa la wax mhm. nee naa la kenn mun ñi may waleen cee génne mhm. kenn sañu ko waaye ba tey jii daa mel ne du ñàkk dégg seex Cheikh Ibra nag de waaye liñ dañuy dellusiwaat ci liñ nekkoon léegi xam nga mooy xol borom xol bu gumbaaraw borom bët yu fettagul ok Cheikh Moussa xam nga loolu li koy indi. Mhm. Euh, euh, mooy. Mhm. li ñuy wax doomu sëriñ bi dafay fekkoon. Mhm. yoo xam ne. lenn lu ci yàlla gërëm nekku ci. te loolu mi ngi ñu baal ma waaye mi ngi ëppi woon ci doomi doomi soxna. te muy jikko yoo xam ne ñëw na nit mën ko yóbbaale àjjana. rëy bokk na ci. diis mooy rëy. Mhm. bokk na ci. Mhm. kañaan bokk na ci. Mhm. ak yeneen ak yeneen. Euh, ñu ci bari nag loolu daf leen caa dal. waaye ku sëñ Tuubaa noppi ci moom ci ab liggéey. yooyu du am ca moom. Euh, ñu leeral ci tuuti. Euh, loolu ba noppi dafa dafa dikk ci yàqu jamono rek. ni nga xam ne tey ni la jikko yi yàqoo. ndax jamono yàqul boppam. ni ko sunu borom sarul fasad. ndax. suuf si dafa bi ak injustice bi nga xamee ne sunu borom maanaam bind na doomu aadama indi ko ci kaw suuf wax nañ ne géej gi sax ndox mi saful woon xorom dafa neexoon suuf sépp naat garab goo dem lekk ba suur gaynde sax daawul fàdd rabu àll ndax justice maandute boo xam ne moo nekkoon ci kaw suuf diggante bi nga xam nit tàmbali naa añaan ak rey moroomam ci diggante xaabil ak xaabil bi loolu amee rek ci la yenn garab yi tàmbali di sax ay dëkk hmm. géej yi tàmbalee saf xorom rab yi tàmbalee fàddante hmm. nga xam ne kon mbon ngi ci kaw suuf ak yàqu gi ñu a ko fi indi waaye yàlla programme yu fi lenn loo xam ne lu hmm. yàq la euh, nga gis ne mag ñi fi jaaroon te jamonoonteeg maam Cheikh Ibra bari na ci mag ñoo xam ne sax yëkkati nañu ay seede jëmee ko ci maam Cheikh Ibrahima ci boo ko tàmbalee ci Cheikh Adama gi ba ci mm-hmm. ku mujj jébbalu ci yoon mm-hmm. kon bu ñu demee ba jamono soppiku nga dégg koo xam ne ni ko sëñ Mamour waxee day féeteerlu mm-hmm. nga xam ne ak gàntalam ci Cheikh Ibrahima Fall nekkut loo xam ne lu mën a argumenté la waaye ci argument bi mooy course bi jeex na ki jël première jël na ko <laughs> deuxième ak troisième jàll na mm. ñu mës a dem fenn te bëgg a rawe aw làmmiñ mm. bëgg noo moom nun nekk ci yëf yi te nekk ci dëgg noo war a xam suñu bopp duñ ko nangul kenn mm-hmm. maanaam te mbott mi ne ci déeg bi di ŋaax di ŋaax mm-hmm. wala xaj bi tëdd ci buntub déeg bi di baw mënta te jank jant bi fenk fenk. te Cheikh Ibrahima Fall foofu la ko. waaw kon la jërëjëf. seetal lii seetal lii. ndeysaan. Euh, euh, maanaam euh, maam Cheikh Ibrahima Fall da lépp rek. Mm, da di lépp. ndax sànq dégg naa ko. mu wax lu am solo. Mm. ndax damay dégg sëñ Cheikh Ngounda Fall. ñu ngi koy ziaraat bu baax a baax suñu sànq. Mm-hmm. naan am nit de bu fekkente ni da nga koy topp. da ko bëgg a topp. Mm-hmm. da nga ko war a da roy. Euh, ni nga ko royee nag moom mooy li nga xamante ni moom la doxee. Euh, te li nga wax sànq si euh, ñi nga xamante ni ñoo jiitu woon. maam Cheikh Ibrahima Fall daa gore. ndax daa ñëw gis sëriñ tubaa ni mu mel. bu ko neexoon. ndax nag bu Serigne bi doonoon ku ñuy xam. ñu ne maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ko xam. damay dégg nga naan bu sëriñ bi doon doon géej. nga xëy suñ suñu raajee rabu géej gi maam Cheikh Ibrahima Fall rek. xam na mu tudd Sëriñ Bamba bu doon teena teena ma wax na ku du mën Ibra Fall xamoo rabu teen kon lim xamoo li teen bi bañ waaw <laughs> xamoo lim bëgg kon bu Serigne Touba doonee ku ñuy xam yaakaar naa ne moom rek moo ko xam mm-hmm. Mm-hmm. waaye li mu xam si sëriñ Touba gis sëriñ tubaa ni mu doone woon mm-hmm. maanaam mu gore ba woote di yéen ñëpp ñëw leen jariñu si jariñ bi Ibra Fall gërëm naa ko lool ndax nag euh, damaa yor sama yëf denc ko mhm. Mhm. foog ni kenn du xam kenn kenn du xam sama yëf yooyu mu fexe ba xam moom mu ko xamee moo foog ni neex ba nga xamante ni kenn du ko mën a jëfandikoo mhm. kenn maanaam ba ba soo ko mosee doo ko yéene keneen maanaam mu mu mu mu gore maanaam mos ko mu neex lool mu mu woote ñëpp ñëw kii ko ah, mu ngoog nga xamante ni euh, kon ni nga xamante ni moom la doxee euh, mun nañ naan maam Cheikh Ibrahima Fall mooy yoonu mu te wax ko Cheikh Ibra mooy yoon wi mhm. Cheikh Sëñ Tuubaa mooy dëkk woon mhm. Mhm. kon nag wax dëgg yàlla euh, li si am solo moom mooy euh, euh, tegu ci yoon wi nga xamante ne moom la teg ngir ñu jëriñu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te yoon moom moom du dara lu dul siraatal mustaqim di yoon woo xamante ne yoon wu jub la mu taxawal ko ci liggéey ak jaamu yàlla kon léeg-léeg euh, ñi nanguwul moom mooy li nga wax xatam mhm. laa ala xulóolum wala chami wala absaarim mhm. wacha loolu moom kenn mënu si dara mhm. waaye ñi nga xamante ni dañ see nekk te umpale la ikraha fi diin mu ngoog mu ci lu wër xat tabayin rushd min kon ñi nga xamante ni dañ see nekk te te te te umpale li gën moom mooy ñu jéem a xool nan leen leen i nan la ñuy laayante biiree ngir ñu xam ni kat nii la ñuy def ba jëriñu si maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii nan la ñu waroon mën a def ba jëriñu si maam Cheikh ba jëriñu Cheikh jëriñu rawatina jamono ji soxla nako lol nak hmm. xam nga fi na fi jamono toll. Hmm. mën na ne len Cheikh ibrahima rek moy solution ci jamono. ndax li nit ñi di hmm. xëccio nako la ko nekkee. ni mu ko nekkee moy li indi conséquences adina moy xëccio dara ja xëccio ab ciir xëccio alal. te yoy yëpp Cheikh ibrahima Fall soxlawu ko. xam nga wara yilif di damelu kadior Mhm. takk sag der sol sam naawal di sukk karaam <laughs> defe naa ne bu ñëpp meloon ne moom kajoor ab soxlu fa tàkk mhm. eh, kon mhm. solution bi mooy jàmm ji Cheikh Ibrahima Fall woote ci bi nga xam ne sëriñ baa ngi fi te mënoon a jàmmaarloo jàmm ji mu woote gannaaw sëriñ bi nekkuk sëriñ bi ak gannaaw sëriñ bi taxawaayu Cheikh Ibra Fall mooy lool. Mhm. ak liggéey te bu liggéeyee ba mu lew ko mu jébbal ko Serigne Touba. ndax ñu bëree ngi wax ne bi budget AOF nga xam ne du Sénégal AOF laay wax. Mhm. Afrique occidentale colonie français. Mhm. budget bi di nekk euh, cinquante euh, cent vingt quatre mille. revenu maam Cheikh Ibra Fall képp nekkoon na cinquante mille. ban citoyen lañ xam ci réew mi boo xam ne mooy def cinquante pour cent ci budget réew. ku dul maam Cheikh Ibra Fall ci yooyu jamono. bindeef yi mhm. leen yóbbu ci seen borom mhm. doon généralist boo xam ne képp ku ñëw tawat joo fa indi mhm. muy tawati ruux wala ju yaram wala tawati bakkan jum ci man doon mu taqale laa ak loola fexe ba mare la ak sa borom nga nekk liggéeykatub Sëriñ Tubaa kon loolu mooy Cheikh Ibra Fall te yemale ko woon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay Baay Faal képp waaye daf ko dafa ëmbaloon jaam ñëpp njariñ ba ci ñi nga xam ne sax nooni sëriñ tubaa la ñu woon gëmuñu woon lislaam mm. dafa xam ne ñàkk xam sëriñ tubaa umpule ko mm. moo waral loolu waaye mm-hmm. bis buñ découvrir kan mooy Serigne tubaa kenn du leen jiitu ci moom mm-hmm. mm. euh, loolu bokk na ci médiation bi mu daan def diggante sëriñ Touba ak ñenn ci ceddo yi mm-hmm. ma indi la ci kenn rek ku mel ne sëñ Abdoulahi Xaar bi njabootuk Lat Joor bi nga xamee ne ñëw na di jébbalu si jubalul ci bi rek ci Serigne Touba la jóge mhm. bi mu demee commandant convoqué ko mhm. te booba chef de province la mhm. bi mu ñëwee commandant convoqué ko dafa lànk demul mu yónnee soññi ko ne ko moom la ñuy xaar sëñ Ablaye xaar yeexal commandant yónniwaat soññee ko bi mu agsee ci lu ci fas wi dafa jël ay tànkam teg ko ci taabali commandant ak yaru bi mu doon dàqe fasam commandant ne ko gannaaw dama lay woo ba lay soññi nga yeexal bu amatee danaa wax ñu folli la ndomb ak tànk gi ñu la jox ñu tekki ko mm-hmm. mu ne ko nag li la may loolu mooy nga jóge tugal ñëw ci sama réew mel ni lu ma yilif ba di ma soññi mm-hmm. loolu moo ko sabab mm-hmm. bala nga maa dàq ma dàq sama bopp jël kayit wa xotti ko ñu ko xottee teg ko ci kaw taabal ji daal di fay jóge ñi mu àndal daal di koy xelal ne ko gannaaw bàyyi nga ko toll ne tubaab bi faw foo wéeru ji te xam nañ ne réew mii fi mu toll mhm. sëñ Tuubaa moo fi di ab wéeruwaay bu dëgër ndax jàmmaarloo nag tubaab yi mhm. ba mënee su ko dara mhm. te ku fi ma sa songoog moom daan nañ mu wàññi laa bi fasam wuti sëriñ Tuubaa bi mu agsee cëppeelu nuyu sëriñ bi ne ko dama bàyyi àddina topp si la bàyyi naa la ñu daan woote sëriñ bi ne ko ndax dëgg la ci yow mu ne ko bu dul woon dëgg ci man duma ko wax ndax gërëmi naa faatoo ma gënal fen li ma koy dëggale nag mooy mbaar siga mii di sama rakk mhm. jox naa la ko addiya ba noppit jox naa la ko soxna te ceddo li muy may ab sëriñ doomam bëriwul mhm. sëriñ bi ne ko nangul naa la ko waaye demal ci maam Cheikh Ibra Fall xamoon na ne yërmande ji ci Cheikh Ibra Fall mhm. euh, ak organisation bi nga xam ne ceddo yeeg tubaab yeek sëriñ si yeeg Cheikh ñëpp a fay daje ak doomi soxna yi te kenn ku ne mu jox la sa wàccuwaay Cheikh Ibra <laughs> Fall rek a ko amal loolu moo indi soxna mbaar moom moo jur soxna astufaal mbaar mi jur sëñ Cheikh astufaal mhm. moom sëriñ Bachir ak soxna Xadi Mbàkke ak soxna Xadi Mbàkke mhm. ak yërmande ji woon ci moom mhm. noonu la ko defee tim ci ku mel ne mbaaxaan nga xam nañ ne dog na sàkkati sëriñ bi jël ay xeej bënn gaali sëriñ bi nga xam ne bi mu ko defee mhm. sëriñ bi daf na ko war na nga ci bàyyi loo xam ne ëllëg mhm. bu jaxasoo waree suñ diggante dana mën a rafetal diggante bi mhm. mu ne ko duma ci bàyyi dara ba mu demee ba suñu borom wëlbati mu bëgg a ñëw tuubal sëriñ Tuuba bi mu yegsee mag ñi dañoo fermer buntu yëpp mayuñu ko mayuñu ko ko ko fu mu gisee ak sëriñ bi ba mën a delloo boppam looloo dafay répété waat ci histoire ndax nit nit la rek mhm. insaniye gi moo fay ñëw nga xool bi Hind di tuubal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ci jaamam boobu nga xam ne moom la faatloo woon xam Hamza mu yiy mhm. xol res bi mhm. buusu ko nga xam ne mujj na sax bokk tuub mm-hmm. dugg ci diine ba doon mm-hmm. garde corps yonente bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. xam ne bu daan jiitu di xalal yonente bi yonente bi dafa mooy wax ne ko féete ma gannaaw ndax li may xalaat ci samam xel sa digg ak xam sa ay bañ mu lor la <laughs> loolu bi mu amee mbaaxaan bi mu dikkee mag ñi dañ ne ñun ñëpp def nañu wenn say waaye dafa am ku des koo xam ne bu jaaree ci buntam mën naa jàll ñu ne kokkan la ñu ne Cheikh a Fall mag ñi dajaloo ne kon nañ dem campagne Cheikh Ibra mm. ba bu fa demee du ko may yoon wu mu jaar bi ñu ñëwee Cheikh Ibra dalalu leen ci kër gi dafa dem ca sën ba toog fa ca gannaaw kër mm. ñu fekk ko fa mu ne leen yegg si leen ñu ne ko yow de ndof ñuy wax ci yow dëgg la mm. ndax nooy amee kër gu taaroo nii mel nii dalal nit ci ab sën mu ne leen kon yegg si leen ci biir ñu yegg si ci biir kër gi Cheikh Ibra yebal ay ndaw ne leen dem leen gas sën ba mm-hmm. buub ko dugal ko ci suuf suul ko jël suuf si féete woon biir. Mm. féete la ko kaw. ba mu set. bi ñu defee noonu. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima ne leen naa ah, doom ñu àggale waxtaan. Mm-hmm. daal di ànd ak ñoom dellu ci sën ba ca gannaaw kër. Mm-hmm. bi ñëwee fekk ni ab sën nekkatu fa dañ koo bale ba mu set. ñu gas ko maasale ko. mu daan ne leen yegg si leen ñu mën a toog mu ne leen fii de tontu ngeen seen bopp ndax dama leen fi jëkk a toogloo nanguwu leen ndax mbalit ma fa nekkoon tey bi ñu ko yeesalee ba mu mel nii ngeen nangu fee toog mm-hmm. mbaaxaan mii kon tey tudd naa ko Abdul Xafoor muy jaam buñ jéggal bi mu ñëwee ci Serigne Touba mm-hmm. Serigne bi ne ko kon de layal nga ma sama digg ak samay bokk mm-hmm. mu ne ko Abdul Xafoor laa ko tudde muy jaam buñ jéggal mu ne ko ana lu ko sabab mun ne ko damaa xam ne mbonam gi agul ci Firawna te sa baax gi raw na bu Moussa kon Cheikh Ibra <laughs> organisé yoon wi muy dëngoon moo leen jubbanti mm. ñu nekkoon ci yoonu siraatal mustaqim itam mm. moo nekkoon ñu leen di encouragé mm. ndax noonu mu def ci moom ni la ko defee ci doomi soxna yi nga mm-hmm. indil la ci kenn ku mel ne di mbokkum sañal liin Fall Mbawar mm-hmm. di euh, Serigne Ibra Ngóone Njaay moo jur sëñ Baara Ndiaye mi jur sëñ Cheikh Ndiaye Baara foofu ci benn sëñ Ibra Ngoone moom mhm. Cheikh Ibra Fall la nga dajeek moom ndar mu jàngale katub alxuraan mhm. sëñ Ibra Ngoone ca kaw pomam ndar wala jébbul mhm. Cheikh Ibra dajeek moom ne ko ah Ibra Ngoone mu ne mu ne ko naam booba jébbuluwul ko Ibra looy def ndar mu ne ko damaa yor daaray alxuraan di jàngale mu ne ko ah Ibra lu alxuraan wax mu ne ko alxuraan de dafa tëkkoo diggee dëxale mm-hmm. mu ne ko ah man sama waajo waxut loolu mu ne ko lu mu wax mu ne ko ku ànd ak moom dala yóbbu ba ci sa kër mm-hmm. ubbil la sab néeg ba nga jaaxaan ci sab lal mm-hmm. mu génn sab ceeb bi jox la soog a wàññi ko <laughs> mu ne ko ah, mu daal di àgg suuf tàllali loxo mu ne ko ñëwal ma yóbbu la mu ne ko jëru ko yow mi xam ko mel noonu doy nga ma mm. ci rafetal ba tey ci digg ma doomu soxna yi ak ni mu organisé woon yoonu murit ca la daal di jël sëñ Ibra Ngoone mooma n ko Adama Gueye mënuma koo fay ndax keroog moom wut sañ wuti sëñ bàmba moo ma fa yóbbu mhm. bëggoon naa ko liggéeyal waaye liggéeyal ku dul sëñ bàmba daa jomb ci man mhm. waaye xoolal ngor ga ak gore ga mhm. ak yéene gi yoonu murit kon Ibra Ngoone demal nga defal ma fa ñetti at sëñ Ibra Ngoone laxasaayu fa ñetti at bi mu dellusee Cheikh Ibra na ko Ibra Ngoone mu ne ko Fall mu ne ko demal tasineer foofu la Sërif Asan Fall gane àddina ak ñu bari ci mag ñi am nañu sëñ Mortala Fall ak ñu baree bari. Mm-hmm. kër googa moom laa la junj léegi na la dem naa fa bu mu fa di ko yeesalaat. Mm-hmm. ngir euh, mm-hmm. yooyu jeexital bañ a réer. daf ne ko demal defal mu fa juróom-ñaari néeg. waaye boo demee. bu ca loxob kenn jàpp ku dul yow. ngay xool jamono doomi soxna. yor daara nga mën koo yónni ci dëkk bu mu xamul. warloo ko fa tabax defal loo ko fa juróom-ñaari néeg. moom kenn yoo xam ne da nga ne ko yow kepp mhm. ba mu defaree néeg yi bay maasale room bi. Mhm. ak ëtt bi. Mhm. bay àgg ci buntu kër gi la Cheikh Ibra Fall gaare. ne ko nga mu ne ko waaw Fall ko ma ne noppi naa ci yow keroog la ko seexal. <laughs> def li nekk ci moom. kon loolu tax ma ne la solution bi jamono mooy Cheikh Ibra Fall. dégg nga waaye ci oh. li li gën a doy kéemtaan ci yow gis nga. Euh, ba tey ndekete relation bi amoon ci diggante sëñ Adama Gueye ak maam Cheikh Ibrahima Fall. ba jël taalibeem yabal ko ca moom. Cheikh Ibrahima waxon te Baye Mbaye Kane Xande mako ko wala bok Baye Abdou Ñanga mako wax suma don bag bu tàbb ci teena ñu dugat ko bam genn génn da ndox ma touru geut ba daggu Cheikh Adama geey ndax Cheikh Ibrahima neena moko moo ko dalal ci nek daram ko bi mi wër seigne Touba Baye Ibrahima cham neena Cheikh Ibrahima Fall moko ne jangana naa Alxuraan mokkal ko tafsir naa yi téere xam-xam yi ba sun borom nama Ibrahima jamono ju ne li may def ci kenn laa koy def mhm. ji jamono li may def def naa ko ci Ahmadou Bamba mhm. Cheikh Ibra ne ma topp yoon wi jëm Mbàkke Kajoor mhm. dajeeg Cheikh Anam gi ñu di ma gunge neena bi may ex mbacke mbàkke leri seigne sëñ da def lu melne ne faari oto nee na tàmp sa dëm di ma niital te ñom ñaar ñima andal gisunuko waye bi may ex see mbacke na gep kajoor di leer te mhm. la am sago su tolne mhm. seigne adama gi gay seigne adama gi dalal ma nek daram mhm. ba jall ma ci côté dëkk di cheikhou Khadim kon relation yoyu dafa jar di indi wat ni ngi ciy ziar bu baax baax soxna ndey Gueye nek fi ci domi seigne Bassirou Gueye nek keur seigne abdou Akim Mbacke am bi sax muy di café jeus bu mourid fi nga nek ko ziar bu baax waa di ci seer soxna Seynabou Thiam Baye ah, Fall moom itam di jàmbar jëmbur mi ñu topp waaye sëñ mm-hmm. euh, sëñ maam seex mm-hmm. xam nga da wax lu am solo mm-hmm. Cheikh Ibra euh, naka jekk kon joxoñ euh, topp joxoñub sëriñ tubaa rek moo ko moo ko indi woon jamono loolu tax na ba bi Serigne Touba nekkee ci géej gi kër yooyu ngay wax suuf yooyu yëpp la ko sababoon mooy bëgg fu sëñ Tuubaa wàcc lu mu ko dugg du tumbaranke fu mu nekk Baye Ibrahima Thiam a ko wax de mhm. nee loolu moo war a kër ga ca Ndànd mhm. loolu moo war a kër ga ca Kébémer mhm. loolu moo a kër gi ci Ndakaaru nee fenn fu ci nekk te kat firnde li mooy kër ga ca eh, Ngumba sëñ Tuubaa wàcc na fa Baye Ibrahima Thiam nee na koroog moom la Cheikh Ibra Fall jox caabi kër ga fii ci ndakaaru waaw mooy gaaraasu Mbawor jeex na mm-hmm. Mm-hmm. fii ci ndakaaru mm-hmm. sëñ Tuubaa wàcc na fi Laminas sëñ Moussa Kane bis ba Cheikh Bamba fanaane Laminas koro murid yi mbég nañ mbégte moo xam la jooloon a France loolu nag moo sabab ba tey suuf yi nga xam ne Cheikh Rafal am na ko ci biir réew mi di ko am ci bitim réew firndali nag mooy eh, Paris la ñuy dem Paris <laughs> sëñ sëñ Cheikh Fall Khady Gueye moom sëñ moo Modou lay Fall Ndar di jàmbar mhm. moom itamit di taxaw xam nga ne kër maam Cheikh Ibrahima Fall foofu ci Paris mhm. waxtaan waam solo woo xam sëñ Moustapha Sylla def na ko fa mhm. di jàmbar ñu ànd ak rési dem xooli loolu te dellusiwaat ci jotaay bi ci daara ji ah, dañ ci soñ suñ bopp di soñ murid yëpp ndax kat lii sëriñ Seex Faal mii tàmbali ànd ko murid yi ñëpp di wara japp ndax kat Cheikh Ibra da waxoon ne nii ngeen may gisee day bu yombal xayma ni ngeen may gisee ndax suuf du lu ngeen foog ba tukki fu señ ba ma sam mbeur ma sam mbor ci ga tukki rek fo deg ki fi nekk Sëñ touba da nga deg ki fi nekk Cheikh Rafal ba tukki kon nak bu nekk Serigne Touba war a nekk Cheikh Rafal rawatina nag muy fii nasaraan yi ndax war nañoo lu ba ki fi nekkal Cheikh Rafal bu fi ñëwee bañ a dal ci ka tubaab yi hôtel yii dañoo war a fexe ku fa nekkal Cheikh Ibra soo fi ñëwee dal ci kër murid yi dal ci kër Cheikh Rafal kon maa ngi soññ murid yëpp di soñ suñ bopp kër Cheikh Rafal nag. murit bi ci France ak ba ca Italie ak ba ca Maroc ak ba ca Espagne ñoo ci yam ndax benn murit bu ne la nga ne ba ca yëngu man caa jëriñoo ak kër goo mën de siyaar si rafal tax nga am kon nag ka Seex ra murit boo xam ne yaa ngi yeewoo ci kër goo moom fii ci France ñu la laaj kese rafal nga ne xaw fu ne ba amagu ko war ngaa soñ sa bopp war ngaa seet sa bopp te nag murit bu ne la mu am ci compte def ko ci xaalis ci banque France yii ngeen def ko te ku ci faatu woon tey doo ko yóbbaale nañ fexe def ci kër Cheikh gi ndax kat lu waaye yor joxoo ci Cheikh Ibra boo faatoo ñu yóbbu la te bu liggéey lu lay seereel lu mën a doon akub taalibe rek moo lay jariñ te Cheikh Ibra moom nga ci roy kon nag murit bu ne foo ne loo am loo am nañ ko def sëñ ma dem dina woon na yitte moom bu dee benn faju kon murit yëpp suñu yitte bu dee Cheikh Ibra Fall fi kër rek waxtu wi ñu ko wax ba yàlla jël si liñ bëgg nañ ko am kon ne maa ngi soññ sama bopp soññ ci murid yëpp ndax kat li ma sëñ bi wax ne ma da daam maire boo xam ne daa génne woon murid yi ci ak kër gu ne aaloon sëñ Tuubaa moom Moussa Abou Dara Serigne Fall Moussa Abou Dara lu ñu yor ñoo ko moom kon nañ fexe ba am fa luñ moom loo xam ne murid bu ñëw murid bu jaaxleeti am fu ñu dugal rawat na Baye Fall yi Baye Fall yi nag ndegem lu murid yi am ñoo koy liggéey kon nañu fexe suñ ko rek bopp ki fi sëñ Tuubaa bàyyi ki fi Seex Faal bu ñëwee tam fu mu ne loolu daal laa ci doon dugal di soñ ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan nag suñ jëw ni ñu jiite yoon wi muy seen Seex jëm suñ borom yàggal ko fi dolli wéram ak mboolem murid ak rakam yëpp di ko ñaan seen Sidi Muxtaar te murid yi ñëpp ñëpp xam compte bi fexe am compte bi lu waaye am na ko ci def kër Seex Faal kat mooy kër murid yëpp dëkk ci kër goo yeewoo daal buñ laajee fa kër Seex Faal nga naan amu gu feek soppali rek ak ni sëñ Cheikh def daal ñëpp a def. waaw nañ jàpp daal bu ñu amee jàmm daal li sëñ bëgg li sëñ bam lu bëgg mën a am sëñ moom lu bëgg dana am nañ ñaan bokk ñi koy amal waaw Kazu Rajab moom am ku ci def dana am am kon nag nañ bokk ñi koy amal waaw Kazu Rajab moom lu mu bëgg dana am waaw ndax li sëñ Tuubaa bëggoon da ko amal waaw li sëñ Tuubaa bëggoon Kazu tax mu am boobaag léegi nag Serigne Fall bëgg dana am kon nag nañ fokk boole ci nañ bokk ci murid yi koy amal tëgg nga sëñ Cheikh Khady Gueye mii bu baax ci liggéey bi tànn kook moom te nag moom jiitoom muy su ko fakkatal ndax mooy womat yoon ku womat yoon da koo xool ci yoon wi kon nag sëñ Cheikh ngi sant bu baax dañ ñaan suñu borom àggal si yéene àggal yéene murid yëpp te ñu ànd koog yow fasen daal màgg seen maam sa jaay gii ñëw ñu war ko def le 18 murid bu cey ñëw ñu indaale sa addiye sa xaalis addiye xaalis la ñu wax na ko murid yi indaale te joxe ko ndax kat xaalis yi jënd kër gi xaalis a koy defar liggéey doole jeex na liggéey bi jëf fi des. waaw ah, Cheikh Rafal waxul baraw daa jëf baraw kon nag képp ku bëgg a raw jaar fa Cheikh jaaroon dangay jëf ku jëf rek la yàllay fay kon nag buñ yàlla boolee ak koo xam ne daa jëf baraw ñu xeñ borom nañ góorgóorlu ci liggéey rek. kon nañ ñëpp jàpp bu li sëñ bëgg am sëñ bëgg lii sëñ moom li bëgg su ko amee lañ bëgg danañ ko am sëñ yàlla li mu bëgg moom dana am kon yàlla na bokk ñu koy amal kon sëñ bi jërëjëf ñu sant murid yëpp euh, tubaarkal euh, jërëjëf euh, sëñ Moustapha Sylla macha allah Paris xam nga ne la doon defee waxtaan wu am solo yi ci kanamu sëñ Cheikh Fall Khady Gueye moom sëriñ Modou Ablaye Fall Ndar moom itam nekk foofu di fa liggéey liggéey bu am solo ni ko waxee rek ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall foofu mhm. dafa yàlla ne eh, waaw dafa jot na sax kay sëkk ci mhm. àdduna bi yëpp ndax Cheikh Ibrahima def na woon bu mhm. sëñ Bamba sampee mbër danaa samp mbër wa sa wet ga sa des ma te wax naa la na la Cheikh Ibrahima kër yi mu daan jënd fii yëpp bëgg lu mu gudd gudd nee na sëñ xam na ne tubaab yi bu ñuy delloo si sëriñ bi. Mhm. ci bato lañ koy jaarale maanaam mhm. wala ci saxaar. Mhm. nee na bëgg na it euh, lu lu mu gudd gudd du tumbaranke fu mu nekk loolu moo sax sabab na kër yi woon ci wetu géej yeeg ci wetu raay yeeg yooyu. loolu la Baye Ibrahima wax ne loolu moo sabab woon Cheikh Rafal daan dàkk tefes. wetu gaar dafa jënd kër. Eh, lépp lu tubaab yi guddee delloo si sëriñ bi. du tumbaranke wax naa firndeli ne. kër ga ca ndànd kër bi sëñ tubaab wàccee ngumba boog. sëñ Cheikh Ibra eh, moo ko jox caabi kër gi. kon sëñ bi wàcc na foofa. fii ci Ndakaaru firnde li mooy sëñ bi wàcc na fii ci Lambinaas. looloo sababoon maam Cheikh Rahane Fall doon jënd kër yi xam naa dañuy dëkk tuuti ci sëñ maam Cheikh. Eh, gannaaw jotaay bu am solo bi gis nga waxtaan wi nga xam ne def na ko. Oh, lépp rek wane ne kon Cheikh Ibra foofu la tegoon tànkam. Mm-hmm. waaye gis nañ ne moom bokk na ci ñi nga xam ne. Eh, su su su su amoon fukki yu mel ni moom wala juróom yu mel ni moom. mu sot la ko. liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall dana gën a feeñ ci àddina bi. ndax bokk na ci bis bi nga xam ne tey yaa ngi koy waajal. muy muy le huit. Mhm. bii di ñëw incha allah le huit avril. ca mhm. Cissesse lépp si ca Cissesse wane maam Cheikh Ibrahima Fall rek a tax ndax mhm. gis nañ na muy demee. Eh, damay faral di wax saa su ne ni eh, conférence ya fay am maanaam waxtaan yi mooy ëpp sax. manam yeneen ya fa yeneen ya exposition ya bi lu am solo waaw ma lu am solo la lépp rek ngir woné Cheikh ibrahim Fall ci côté xeyna ñi nga xam dañuy ñew ngir di bind ñu mëna a am yobbu ñi gessu ñi nga xam dañuy ñew itam ngir di tewlu itam ñu gëna mëna dundal seen xol ak seen ru ci kan moy Cheikh Ibra ak ak ak nan la manam lolu ban yow ban yeg yeg nga ci am manam nan nga yeg bis boobu noonu euh, jërëjëf sëñ mhm. euh balay ñi dugg ci bis bi rek dañuy am mbégte mhm. di sant bu baax ci bi nga xamee ne Cheikh Ibra Fall wërsëgale nañu. Mm-hmm. ñu bokk ci ñu koy wooteel te di ko liggéeyal. loolu nag du ak njàmbaar. Mm-hmm. waaye ndimbalal maam Cheikh Ibra Fall la. bis bi itam ni nga ko waxee. Mm-hmm. ren mooy juróom-ñaareel bi édition. ci gannaaw bi nga xamee ne am na ci ndigalal sunu kilifa muy Serigne Cheikh Fall Mbawar. kon ne xam ko itam ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall. ak di soññee ci yoon wi bu baax a baax. Mm-hmm. ak ak ak ak ci liggéeyal Cheikh Ibrahima ci fànn yu bari. li nga xam ne moo sabab bis bi mën nañ koo dugal ci waxi sëriñ tubaa mm-hmm. ndax li waxi sëriñ tubaa dara du ci asaar. Mm-hmm. te lépp lu mu junjit dana agsi. wax naan suhuuri wa ayaam yi xadan li sawaaxidu mhm. bi kaw nii abdallahi wa huwa sahidu mhm. loolu ñun dañoo ñaan bis bii ñuy taxawal Cheikh Serigne Cheikh Ibrahima Fall mhm. bokk ci bis yi nga xam ne ëllëg day bokk ci bis yi muy puukare li ñu dugal nag ci ñu taxawal bisu maam Cheikh Ibrahima dañoo tolloon ci jamono foo xam ne foo génn ci ndakaar mhm. li tax sax ñu tànn defe ko ndakaar mhm. foo génn da ngay dajeeg ñu ñu tuddee ay Baay Faal mhm. yàq geeg colin geeg melokaan yu doy waar lool ba ñu bari sax danañ ci yàqoon ndax dañuy jëppi Baay Faal te fekk kañ jëppi du Baay Faal Baay boppam kenn xamut lu mu doon sax yoo xam noo koy mën a tuddee ndax amul tur ci yoon yi ndax bi nga xamee ne Serigne baa ngi fi Cheikh Ibrahima Fall ne fi mag ñi ne fi mag mu ne ab cheikh nga woon ci kër sëriñ mhm. waaye kenn tuddoon Baye Fall muy maam Cheikh Ibrahima Fall du ka ne mhm. kon bu nu demee ba bëgg koo rey topp ko ki koy roy te di ko topp mhm. dafay jaar ci yoon wi nga xam ne fa la Cheikh Ibrahima Fall jaaroon wala mu jaare ko ci bunt bunti njabootuk maam seex Ibrahima Fall ngir mën a dem ndax itam foo dem ay soppe maam Cheikh Ibrahima nga fa ndax la daan wax ne doom sama nëgi ndénkaan yaa ngi ci gétt yi gu ngeen dem ak nu kooka mën a ba ci sax ñu bokkul ci yoonu murit mm. kafa man sama nagu ndénkaana maa ko fa yóbbu kon loolooy xamal ne day defar l'islam mm-hmm. di defar yoonu Serigne Touba mm-hmm. ñu gis ne kon yàq gi ak tasaaroo gi bari won mm-hmm. ma gis ne bo xoolee koñ boo xam sax dafa bari ñuy jalgati. bu fa patrouille gendarmerie bare wala police. Mhm. loola dana wàññi ko. Mhm. ma gis ne kon nun njabootu Cheikh Ibra Fall tekki gi ak noppi gi ak yar bi. Mhm. tax na ñi ngi yëg ba booy koy yëg si sunu bopp. dëgg te it loolu de su ko seetaan. gannaaw Cheikh Ibra Fall yebuwuñ ko woon wuñ ko. doom yi ne fi ba jóge fi ak sëtam loola amut. bu amee ci noonu kenn ku ne doo jóg di réclamer. waaye da ngaa war a jóg bay ci sa wàll. fa sa waaru tool toll. ku nekk bayee ci waar wi fa nga tollool ci tool bi donte ab dëpp néeg la mhm. bu lépp dëppaloo dana set patrouille bu baree saay saay si ruur tool bi dootuñu fa ñeme mhm. te gis nañ ne bis yooyu bi ñu ko tàmbalee taxawal ak di ko amal mhm. ak di leeral yi ci bari mu ngi wàññeeku bu baax a baax te loolu li ko def mooy dafa am ñoo xam ne dañuy ignorer waaye xamuñu lim ñuy dugg lu mu doon loolu nag mu dimbali ñu ak kuréel gi àndal nga xam ne ñooy saytu bis bi. ndax mm-hmm. ah, man maay feeñ waaye lu mel ni ñi ma fi àndal tey ak ñi nga xam ne ñëwuñu. Mm-hmm. Euh, ñooñ ñëpp ñooy àndandoo takku. Mm-hmm. ngir liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. millions yu bari lañ ciy def. te it du loo xam ne dañ fay séentu xaalis liñ ciy séentu mooy ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall. baalu murid yi ak liggéeyal ko. ndax sunu lépp Cheikh Ibrahima Fall la ko moom. sunu lépp Cheikh Ibrahima Fall la ko moom. moo taxoon nit ñu tànn béréb boo xam ne waxtaan yi day mën a yaatu. ci ñi nga xam ne dañoo umpule woon maam Cheikh Ibra mhm. tax ñu di ko def ay thèmes mhm. bu ñëwee tey ne Cheikh Ibrahima Fall ak liggéey ñu mhm. xamoon moom ban taxawaay la amoon ci yoon bi ndax li ngeen wax léegi li mu amoon ci ay titre foncé li mu amoon ci kër du nit ki day nelaw ba yeewu rek am titre foncé wala mu taxawaalu ba mu neex am titre foncier waaye loolu ci liggéey la koy mën a am loolu itam moo sabab at mu nekk ñu wut benn thème boo xam ne moom lañ ci jaarale te it ñi woon ak maam Cheikh Ibrahima ñëpp ko tegoon ci béréb ñëpp ko respecté woon mhm. njàngale moomu mooy li sabab tey ñuy woote CICES mhm. journée culturelle waaye pour la vie et l'œuvre de Maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. ci xam la ne liggéey bu am solo la bokk na ci ki nga xam ne tey moo toogal xalifa général de Tidiane te moo jiite mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci cap di suñu goro ndax moo jur soxna maam Ibnu Samb soxna Alimatou Gaye ñoo itam ñoo ngi leen di ziyaare bu baax amna bis bi mu fa ñëwé dafa né mom lam fa jàngé ak niñ doon xalaaté Baye Fall bokku mm-hmm. na ci euh, ben maire fi ci Dakar mm-hmm. kilifa ga fa né bokku na ci ñu sol ñi sos Moustapha Sidine Dine mm-hmm. keroog bi ñu njëkkee dajee ci préfecture sous préfecture bu parcel, di def CLD daf né ma man de xawma né won li lii di Baye Fall waaye tay amna ci adina bi fu ma neex man naa faa taxaw défendre fa maam Cheikh Ibrahima Fall lii mooy dëgg te lii mooy yàlla soxla mhm. bu jaam yëpp meloon na yéen dara dootul dëkk te moom nee na keroog ndaje bi daje li muy gàtt gàtt moom loolu la fa jàngee kon umpale gi rek mhm. umpale gi rek Cheikh Ibrahima Fall du ko ñu bañ waaye kuñ dañuy umpale mhm. yàlla nag moo dogal kenn ku mu wàcce ñëpp topp ko amul kenn ku mu wàcc ñëpp wekk ko amul. Mm-hmm. kenn ku nekk dana am gis-gis. Mm-hmm. ndax nit ñi ñëw bokkul fu nu jëm. Mm-hmm. bokkuñu fayub ëllëg moo tax faw bëgg-bëgg yi di wute. tubaarkàlla eh, di fàttali wax man gis naa benn murid bu ñu wax. Euh, Babacar moom itam jàmbaar dëgg la moom bokk na ci ñi fi bis bi bàyyi fi ne mhm. ene mu ko déggee États-Unis la war a dellu waaye bis bee ko fi bàyyi xam naa dina jokko yow incha eh, tey jii rek gis naa muy yóbbante loolu moom bis bee ko fi bàyyi te xam naa xamul sax sëñ maam xamul kenn ci ñi koy taxawal waaye bis bett ne yemut Sénégal mhm, mhm. dama bëgg mu nekk journée internationale nga xam ne fu yàq kat yi egg rek ñun ñuy defar nañ fa yegg <laughs> waaw maanaam tey ñu ngi ko defee Ndakaaru euh, waaye commencé nañ ko décentraliser. Mm-hmm. ndax première mais maa ngi ko war a defi Italie Milano. Mm-hmm. maire bi ci boppam maa ngi ziar waa daayira Nooru daayira ni te sëñ Baba Gueye jiite ko. Mm-hmm. ñu ngi ko fay amal. te it at mu nekk mbooloom baree fay teew. ba daaw maire bi yónni na fa ay conseillers ba. ren moom ci boppam wax na ne. marche sax bëgg nañu ko may biir Milan. parce li ñuy wane daal moom. rafet la ci moom. Mm, noonu mu ko defeet lañ ñu ngi koy waajal ci mois de septembre. Mm. wala octobre. Mm. Espagne. te noonu lañ ko bëgg a defee ba mu daj jamono. bëgg naa daal fépp fu yàqkat àgg teg fa tànkam. dañ mm-hmm. fa teg suñu tànk ngir liggéeyal fa Cheikh. tubarkalla ah, waaw Cheikh Ibrahima mën na ko. Mm-hmm. te moo ci jàppal boppam <laughs> <laughs> yàlla na sotteeg jàmm ci barke moom Cheikh Ibrahima Fall. Eh, sëñ Aline Badara macha allah. waaw ah, macha allah moom moom mu ngi liggéeyal maamoom. mu ngi liggéeyal maamoom. Mm-hmm. Euh, te it euh, li moom dañ koy ñaanal mu sax dàkk rek ndax li si am am solo mooy euh, ñi si gind ko xam mhm. nag euh, li nga wax sànq moom Cheikh Ibrahima Fall ku xam si moom euh, lenn rek mhm. wala nga dégg si moom lenn rek mhm. yaakaar naa ni maanaam dafa soppalu dafa dafa soppalu maanaam waxuma dara waaye maanaam photom photom bi ñu miin rek maanaam boo ko xoolee rek dafa am lu muy def si si si yow nga xamante ni kon xëy na ñu bari umpale ñoom ñoo ñoo ko waraloon kon boo leen taxawee leen lii ngir di si soññ mbokki taalibe yi di leen xamal ni xëy na bëgg nañ waaye teg tànk bi fi ñu ko teg xëy na moom moo dul noonu ñi xëy ni dañoo nekk doon euh, di di di seetaan mhm. maanaam xool jàppe woon ak Baye Fall. Mhm. beneen image. Mhm. dina tax ñoom ñu yeewu xam ne ah kon de ndekete. Mhm. image bii ñuy gis si ñenn nit ñi yaakaar naa ne lii du Baye Fall. Baye Fall day bëgg boppam. day nangoo liggéey day nangoo jaamu yàlla. loolu yaakaar naa ni mooy Baye Fall. te plateau bi ni ñu toogee nii rek firndeel na ko. Euh, maam xam naa ni euh, grand boobu moom gannaaw da ko fi bàyyi rek. <laughs> waaw euh, nga xamante Baye Fall fu ci sol gën a rafetee macha allah. da koy da koy da koy da koy sol. fu mu gën a fu fu fu maanaam sell. dégg nga sànq ni mu doon ni mu ni mu jekkoo alquranul karim gi. ni mu jekkoo xasaayit Serigne Touba Xaadim Rasul kon loolu mooy ak Baye Fall kon ñeneen ñi li ñu gis foog ni euh, euh, euh, daal li li sëñ Cheikh Ngounda ñu ngi koy jeex bu baax a baax wax dëgg yàlla di ñaan mu yàgg loolu te ànd ak wér léeg-léeg danaan gis nga mm-hmm. maanaam mm-hmm. ñii nga xamante ni ñoom lañ koy tuddee mm-hmm. ñaari baat waaw bismillah aca demal wax Ibrahima Gueye mooy dugg mooy dugg waaw bu noppee ñu ngi koy xaaral moom dafa am ah, pas-pas ma àggale waxu sëriñ bi mhm. ndax day wax naan gis nga ñii ñuy duppee wala ñu mhm. jàppee leen ni ko Baay Faal mhm. maanaam képp ku ñu si jàpp oh, maanaam doo dégg kenn ku ñu tudd di tudd Cheikh rek kuy ñaan intervention ndax euh, kon mooy loolu dafa am ñu ko sëñ Ibrahima Gueye ku am yéene si liggéey bi ma ah, bàyyi la nga jël ko sëñ Ibrahima waaw kii de dafa mel na Cheikh Ndiaye xasida la. ah sëñ Cheikh Ndiaye xasida ci bisimilah. ah waaw waaw damaa yëngul tey lool lool. ah dañu maa yëngal lool. tabarkàlla suñu sëñ Cheikh Ndiaye. xam ah, nga ñun moom ñun moom suñu yëngu suñu dal suñu dund suñu dee lépp. Cheikh Ibrahima rek tabarkàlla. waaw loolu tax maanaam bu ñu déggee ko waxtaane Cheikh Ibrahima rawatina nag sët bu bokk ci moom. waaw maanaam muy bette bette boobu ngeen dalal. waaw mu nekk diggante kër sëñ Mor Talla kër sëñ Aliou Fall Mbawar. waaw moom boo ko bàkkee soo ñu wuddiwaat waaw waaw mu ngi koy loolu koy loolu koy war nañ koo fàttali sax àddina ñu xam ne eh, ki toog moom sëñ Mor Talla Fall way juróom bu jigéen sëñ Aliou Fall Mboor moo jur way juróom bu góor déglu ma ma faram fàcce ko ñëpp dégg ko aja bismillah Cheikh Ibrahima Fall Babul moo meññ Mor Talla Fall meññ Aliou Fall seen way jur jigéen mooy soxna Diop Sayer waaw sëriñ Aliou Fall Mbawar moo jur sëriñ Cheikh Fall Mbawar mi jur maa Ibra Fall moomu soxna Ndiaye Fall moom sëñ Mor Talla Fall mooy waajuram wu jigéen loolu xanaa leer na leer na nañ kay <laughs> kon nag bis bu mu taxawal waaw jëmm Cheikh Ibra tax mu taxawal ko ndeysaan jaadu na waxuma la Baye Fall waaye murid yëpp war nañ cee ñëw ndax Cheikh bu moom murid yëpp ko amal njukkal loolu dëgg la murit yëpp yëpp ko amee njukkal ndax maanaam bu ñu jariñoo sëñ Touba tey moom moo nu woon ni ñuy jariñoo sëñ Touba te sëñ Touba nag mooy hmm. borom njariñoon àdduna ak leen alaxira wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanat an bila dararin ki ñu joxoñ nag nañu njariñ laa nga ne mooy babul murit yi la jaaraama moom yàlla tax ci moom dàkk rek ñun jox wuñu dara ubbi leen siyaare siyaare mi waa xuru bàkke ak baxdaas <laughs> ak Daaru Xuddoos tubaarkàlla <laughs> jërëjëf Serigne Cheikh Ndiaye xasida <laughs> euh, mel na ni si Ibrahima Gueye yëglu woon na xam naa su fekkee mi ngi taxaw ci ligne bi comme pas-pas am moom jàmbar dëgg la te mm-hmm. xam naa ne mm-hmm. na xam naa ne am na lu mu yëge ci jotaay bi moom ndeysaan tubaarkal la nga fan yee maak moom ñoo daje ci sëñ Thierno Mbacke Gelongal ah? ak sëñ Aliou Thioune dëgg la ah? bisub sëñ Thierno bi ndeysaan nga sëñ Thierno sama nijaay waaw ah, sëñ mm-hmm. Thierno waaw ndax euh, waajuram bu jigéen bi soxna màggat ak jur sama waajur bu jigéen eh, Euh, soxna Khady Ndiaye mhm. maam Ñang Ndiaye mhm. ñoom la seen bàyyi boole woon jox sëñ Touba addiya 1911 mhm. junniy bëri koy gerte boole leen ci ak seen càmmiñ di ala sëñ Mañaay Ndiaye sara mm-hmm. yar na ko ba mu yilif mm-hmm. ba mu yoroon daaree kaamil njaare mm-hmm. ah, looloo tax sëñ Aliou keroog noo xam ne yaramam tàng na fa lool mook sëñ Ibrahima Gueye muy daje boo xam ne wax dëgg yàlla doolee ko nañ ci xam ci ñoom dëgg la dëgg la sëñ Aliou Mbaga xam na loo doon leeral ci suñu Cheikh Ngounda waaw lu am solo ngir wane ne rek ñi nga xëy ni léeg-léeg mooy nii euh, maam wax xëy na ab xër moo leen si dugal wala leneen waaye lépp loo si kii rek maa mbir boo ko bëggee dëggantaan da koy dem gëstu ji fu mu ko war a gëstoo bala nga xaa topp lu si am solo la mhm. ndax ne ñoo ñëwee eh, sëñ Cheikh Ngounda maa ngi koy ziar bu baax a baax day faral di wax naan mhm. eh, koo si gis maanaam ñu dégg ko si naka su dul noonu mhm. ba am eh, ñi ñi yor yoon téye doo gis kenn kuy sant Fall kuy ñëw di di laaj intervention ndax xamuñu leen laale wuñu wax dëgg dara kon bu ñu bëggee Cheikh Ibra bëgg kaa roy nañu jaar fi ñu war a jaar te sax ñu bari ci ñuy def yu mel noonu di dajale ay nit tudde leen ay yalwaan loo ko def yëf mm-hmm. loolu Cheikh Ibra daf ci àddu woon mm-hmm. ndax jamono yi Cheikh Ibra di nekk ndar mm-hmm. am na ku ñuy wax sëñ Fallou Diop nekkoon ndar dafa tuuti woon amul woon doole ba tax dafa daan màjjal waaye bi mu joxee Cheikh xaalis Cheikh Ibra sànni xaalis bi ci suuf ana ko Fallou mu ne ko Fall na ko xanaa la ma la digaloon defoo ko wërsëg yi nga ma jox mi ngi may wax ne da nga ko yalwaan te tere woon naa leen yalwaan ci dëkk bi wax leen ne bi ak pajaas jaa ngi fi kenn ko ne na nga ca dem di liggéey mm. kon Cheikh Ibra Fall loolu la santaane woon ndax loxo buy féete kaw toujours mm. Mm. mooy sangub loxo bi féete suuf defe naa euh, kii nañ te it dafa dem ba nekk modd nga xam ne da ngay gis koo xam ne waaw mm-hmm. yu bëggee yëngu ñu xam ko rek. Mm-hmm. na naan diwum Cheikh Ibra Fall. te lu ñu naqare ci yoon wi moo ko fi indi. Mm-hmm. lu ci yoon wi moo fi indi te bu demee ba jekk nag esel lay def Cheikh Ibra day bu demee ba yëg ba jàpp ne jekku na. day boobu wax esel. de ku ñuy ku ñuy jox moom ki ñuy jox daa mel ni diggu ko diggu kiy joxe rek kiy joxe rek la dig. xam maam Cheikh Ibra Fall te eh, da daan wax ne. yomal xiyaam balance la. lu ay wax. balance nag da wut loo ca teg. Mm-hmm. te nag léegi dafa mel ne man xaw la saalihan lañ bëgg a xewal. waaye man mm. <laughs> amiin amiin <laughs> waaw. <laughs> man amiin de daa gën a wér. waaw daa gën a wóorin de tubarkalla est-ce que waaw lu am solo rek moom daal sant bu baax a baax maam euh, ñàkkul ni euh, dina leeralaat lu bari si bis bi mm-hmm. ndax na xam nga ni bis boobu sànq sëñ maam Maamoud ba ñuy tàmbali wax nga ko mm-hmm. mu ngi ko ko duppee ñaar ko mat mm-hmm. euh, di Serigne Fallou Mbacke mi nga xamante ni di di fàttali nu mbokk yi sax tey leen doon séntu weeru rajab bi tey ji si talaata gi waaye nag weer bi dafa dafa kaamil xam naa ni alxames mooy doon benn fan si weeru rajab nga xamante ni bisam boobu nga xamante ni mu ngi tombeek guddik Isra wal parrainage googu xam ngeen ni kon ñu ngi ko jàpp ni ñaax ñaar fukki fan ak ñeent muy tombeek altina di bisu kazu rajab kon mhm. ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ngeen ni moom la duppee bis bi kon mhm. duppee na ko mat si biir weer rajab bi mhm. waaye it eh, sëriñ Modou Mbend Fall ni ko waxee ñaari parrain yu ñàkkul dinañ si dikk sëñ Mamour waaw euh, macha allah xam nga loolu eh, sëñ Modou Mbend mooy maamam ndax moo signal yi Fall Mboor ñoo bokk lépp te Baye Assane Diop yàlla na ko fi yàlla yàggal mooy xalifa Cheikh Atoumane Diop am na bis ma dama wax lu doy waar ci lu xew ci diggante sëñ Aliou Fall Mboor mhm. ak sëñ Modou Mbenda mhm. nee na bàyyi ma sàmm Diop kokki moo ko ko wax mhm. lu yaatu la nag am na ci loo xam ne xëy na <laughs> sax du jotaay ñëw seen yi na mu ñàkk ñàkk ñaari doom defe naa ba mu koy ah, ñaari doom yooyee sëñ Aliou Fall sëñ Modou Mbenda te sëñ Aliou Fall mboobeen mu sëñ Modou Mbend sëñ Aliou Fall mboor lañu te xam nga sëñ Aliou nag moom day lépp buntu kër Cheikh Ibra ndax kër Cheikh Ibra Fall dem ci njaboot bi da nga fa fekkum sëñ Aliou loolu nag defe naa loolu xam naa daal loolu sëñ Maam <laughs> ah, jërëjëf xam naa ci la ñuy tàggatoo waaw waaw jërëjëf <laughs> euh, sëñ Mamour mhm. boo gisee itam bis bi at mu ne mhm. dañuy tànn mhm. kenn ci njabootuk Serigne tubaa def ko muy parrain ak kenn ci njabootuk maam cheikh bi ni nga ko ci tambali mhm. ko wax lay lay la teg ci muhammadu rasulullahi mhm. ku serigne touba da kantal ko ci xaadimu rasul mhm. waye ku tuddu serigne touba dang ci tek teg maam cheikh bi loolu nag du lu sëriñ bi propagande ak wër di campagne ak neexal kenn yalla ko bëggee non mo fa ni euh parents yi li xew ci jamono moy tuddé nit dara di ci sentu dara tubarkal da melni ne ibrahim da daan ci ligne bi bismillah bismillah

feeñal sunu mbégte ak sunu cant rek moo ñu tax a dugg. ndeysaan mhm. waaye mata ngeen ko sëkk. ndeysaan euh, waaye day mel ni rek damay indi ñaari bind ñett rek daal di taxawal ndax xam naa ne jotaay bi fi mu toll. Mhm. ak li nga xam ne moom la sëñ maam Cheikh di indi. Mhm. dafay doy sëkk ak yóbbal. waaye feeñal suñu yéen rek. xam naa benn bi damay jukki rek ci li sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Madou Mofada. dafa indi bind bu am solo boo xam ne. Mhm. dafa wane lan moo di ak Baye mhm. loolu liñ ciy déggee ne yoon wi. Mhm. lu borom nos la ba mu ba mu nosu. mooy leen ñëw leen yoon waa waaye nag lijjantu yoon bi ba noppi doo ko xool nu mu war a noso. loolu li ci jublu mooy ak Baye day yoon wu leer nañ. du yoon wu jëm ci sëriñ bi. te yoon wi jëm ci sëriñ bi mooy tax nikki ki mën a àgg ci yàlla ba mën a am ngërëmam moom loolu la wane moo tax mu wax ni euh, ak Baye Fall dafa wax ne ñett la nee na mooy tudd yàlla jëfe ndigal ak loo liggéey jox yàlla yaara ñetti tomb yi mën naa taxaw bu baax ñett yii de buñ ci tënkoon daanaka daanaka daanaka dafa yax ne réew yëpp am jàmm kenn du soxlaa kenn nag kenn ku nekk li nga am dana doy sëkk wala si leneen. loolu muy lu mat a xel. waaye beneen bi damay jukki rek as lëf ci lii sëñ maam Cheikh Rama Fall li mu indi moom sëñ Cheikh Fall Mbawar. muy bindu bu am solo boo xam ne daf ni ko indee dafa dafa sëñ Saliou sëñ Saliou daf ñu koo jàngal. sëñ Saliou radiyallahu moom xaadimu rasul. Euh, maam Cheikh Rama Fall Mbawar li mu wax dafa leer. dafa wax ni. nit nit boo nit boo koy roy. danga koy roon danga koy roy te jaar te yoon wi mu jaar mhm. baat bu waroon nañu ko bind sax di ko jàngale mhm. dafa ni boo koy roy mhm. danga koy roy ci jaar te yoon wa mu jaar te Cheikh Rafa yoon wi mu jaar yoon wu leer la ndax nangoo naa ci kër waa euh, ci kër ci njabootu Cheikh Modou Fadil Fall ñu wax ne sëñ Mamadou Fadil Fall rek dara daana wax ni maam Cheikh Rafa Fall mbindum sëñ Tuubaa lay jëfe waaw ah, kon kooku suñu teg tànkam fu leer la moo tax ma ma <laughs> jukki lool ci li mu indi lépp waaye amaana ñëw na ci njëlbeen baag ca taarix baag lu njëkk ma ñëw seen yooyu yëpp day mel ni damaa bëgg a junj yéen yi nga xam des na ko mën a yóbbuloo rek ci tënk <laughs> lii firnde li mu wax nag suñu saar yi radiyallahu anhu daf ñoo jàngal ni <laughs> sëriñ Tuubaa boo ko bëggee moom da ko gàtt dafa ne da ngay def li mu bëgg te ku ne xam ne ku def li sëñ bi bëgg doo def tere moo tax Cheikh Moustapha ma Massamba mi nga xam ne mooy suñu bunt ci Seexul Xadim rek de la andu jërëjëf dafa wax ni li ëpp ci talibe bu ñuy jébbalu mm-hmm. dañ naan mbàkke loo ma digal ma def ko mm-hmm. loo ma ma bàyyi ko mm-hmm. daf ma cay tegal bis nag damay Ibrahima man ko mbàkke mu ma loolu wax ji yàqu la mu ne ma da nga ne nee na booy jébbalu ci sa kilifa da nga naan mbàkke loo da naan mbàkke jox naa sama bopp addina ak alaxira loo ma digal ma def ko te ma def loo may tere loolu nag day mel ni Cheikh Ibrahima moo ko prouvé moom bi mu jaayanteeg sëñ bi. ku ne xam ne nag ak bëggam mooy bëggub sëñ bi. loolu nag dama ci joxe tegtal daay waxi kase nii de. dama koy teg ci dalil bu leer. sëriñ bi bu mu ko bi mu ko woowee ak lenn ci sere yi. ne kenn ko nekk damaa bëgg nga wax loo bëgg ma defal la ko. moom la wax ku ne xam na ko xanaa di la gën a bëgg. waaw ah, xanaa di la gën a bëgg. kon loolu di buntu boo xam ne tamit buntu bu mat a bàyyi xel la. Eh, kon damay gàttal foofu rek ndax waxtaan nga xam solo. waaye faw ma ndokkeel ak jaajëfal sëñ maam maam Cheikh Ibrahima Fall moom suñu Cheikh Fall Mbawa. jërëjëf ndax damay jàppale yoon wi mu jaar. Mm-hmm. ak ni mu jaaree ci yoon wi lu mat a roy la. jërëjëf eh, ndax lii muy def nii ren nekk juróom-ñaareel bi ak lu toftal. Mm-hmm. mën naa ni bi rajo bi bi Lamp Fall di rajo. Mm-hmm. da ko tàmbaloon ak ñun jamono yi maa nga ca Touba. ba mu doon tele mu ñëw di waat loolu waaye ndax dafa bind boo xam ne damaa bëgg ñëpp roy ci saa bu bi jegee lu jiitu weer baa ko manqué dana fexe ba nemmiku ñi nga xam ne ñoo yar wàllu commercial ne leen nañ seet la ca waar mu def ko jiital njëkk muy wote loolu bind la boo xam ne ndaw yëpp war nañ cee roy waaye nag bu fekkee da ngaa bokk fi barab bu ñëpp di roy da ngaa war a doxin da ngaa war a dox doxin boo xam ne ku la gis roy la ndax ndax yonent bi lu muy baax a baax. sant mm-hmm. wuñ ko askan. Mm-hmm. tàggooñu ko alal waaye jikko daana xaar nag moom ko koy rey danga koy rey te jikko ji ak pas-pas te day a ngi ci yooyu nag moom ak Baye Fall nag neexut a seera waaye moom xam naa ne ña nga ca yoon ah, waaw ndax maa ngi ñoom a bokk seen waaw ak Baye Fall sañ soo doog ne diw de Baye la waaye moom mën na wax ne ña nga ca yoon ndax moom dong la ñuy sañ am na suñu borom nangu di leen jot bi baax ak met ma di ko ñaan ndax Moussa ku nekk xam ne day bàyyi xel jotaay bi. macha allah waaye tam dinañ jot lu baax ziare suñu Omar Ba. Mhm. Euh, di taalibe suñu Fallou Fallou Fatikan ak soxnaam soxna Ndaatu Diop. Mhm. di ñaanal baax suñu maam Cheikh Ibrahima Fall moom suñu Cheikh Fall Mbow bisam bii. Mhm. mu daje ceeg taw feex. ak tey si ak ngërëm a sëriñ bi. waaye lépp rek yàlla nay njariñ gu ànd ak yokk ak ngërëmal sëñ Tuubaa mhm. ñu ngi santaat baax te jégalu di sant baax bokk taalibe yi nga xam ne ñoo teewee jotaay bi mhm. Mhm. waaye ku leen xool xam ne ne bu ñu nee jës buñu budi xool jotaay bi nga xam ne méngoo na ak li ñuy jàngale ñu ngi sant baax te jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulah tubarkalla jërëjëf eh, sëñ Ibrahima Gueye eh, macha allah borom pas-pas la jàmbaar dëgg la <laughs> eh, nii moo ko defee ci jotaay bi nii mhm. noonu la koy defee sax saa su ne mhm. ndax doon bu duggul sax dana ñu woo ci biir mhm. wala ci suuf nañu tey ci lu ngeen di waxtaan rek maa ngi ci biir li koy li koy li koy firndeel tey ji jàppal ni jotaay bi defuñu si dara lépp mooma waaw ma bi tey bi lépp mooma <laughs> lépp mooma waaw waaw ñu ngi koy lépp mooma baax a loolu ak cant la baax a baax kon nag di ñaan suñu borom dalu ko fa yàggal bu baax waaye yàggal fi sëñ Alioune Thioune di ziar baax sunu nijaay sëñ Bay di Thioune moom ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar mboole ñu nekkal bërëb bi sëñ Asan Bay fàtte sëñ Abdourahmane Ndaw a baax moom tam la moom di ko ziar baax te di ko ñaanal ko bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall la ak mboole mbokk yi ñu liggéey bi xam naa kon xanaa kàddu yu mujj yi ndax na ñu ngi ci cat li fi ne waaw ki nga xam ne moo toog a jëlaat Cheikh Mouhamadul Fadal. di Abul Baraka. te di bëggug sëñ Fall. sëñ Fall sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra rek lay nooyee. moom tey muy sëñ Fall. nopp boole sëñ Tuubaa ak Cheikh di sant njabootu sëñ Fall gépp di leen woo ci bis bi xamal leen ni seen bis la. lu ci ne nag jar na ko diggante sëñ Fall ak Cheikh Ibra jar na ko. diggante sëñ Fall ak sëñ Alioune Fall jar na ko. Mhm. ndax dikkam Tuubaa ci 1954 mi ngi jóge ci Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke. diggante sëñ Falloog Baye Fall geeg murit yëpp it jar na ko. Mhm. moom daal li ma leen wax mooy nim nu def ak nim nu defal lu ci ne jar na ko. Mhm. diggante sëñ Mourou Mbenda Fall it ñuy siyaar sëñ am di. tey woo mboolem njaboot gi. Mhm. mboolem sëti sëñ Mourou Mbenda Fall yëpp itam. nga xam le ne. Mhm. sañ Muudu Mbenn. Mhm. tuddee na doom sëñ Yàlli. Mhm. sëñ Yàlli Faal Mboobeen. bokkoon na it saa yu masaan siyaar Cheikh Ibra dugg saxaar. bu ñëwee sëñ Muudu Mbenn daa doon yóbbu ci oto maam Cheikh Ibra. wax nañ naan bi Cheikh Ibra Faal ne bëreet jóg taxaw. daanaka sama daamar ji te daa mel ne yóbbu nañ ko. bu ko bëggoon a këpp. Mm-hmm. waaye ba ma ko xoolee damaa seen muy Aliou Moodu Mbend mm-hmm. Moodu Mbend di ko yóbbu Mbawar mm-hmm. ma xam ne kon danaa ñàkk oto ñàkk ak ay doom <laughs> ñoom ñaar dañuy doom yu ma rus ah, nga xam ne Cheikh Ibra la wax waaw <laughs> ah, <laughs> ñu sant bu baax di gërëm itam bu baax di itam jéggulu mboolem taalife yi mhm. lu ci dëng ci nun la mhm. lu ci baax itam dañoo fas yéene liggéeyal Cheikh Ibra rek mhm. di ñaanal sëñ Cheikh Fall Mbaor mu yàgg fétéwéer ak mboolem njaboot képp asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant itam sëñ Ibrahima Guèye bu baax ci dugg bi mu dugg moom boo ko séenee rek xam ne murid saada xam wax ci commercial bi rek looloon war xam nañ ne ñi fi nekk di fi xëy ko gont di liggéeyal Cheikh Ibra Fall lu baax ci yoon wi kër Cheikh Ibra Fall la ko war di fay kon luñ ci def rek dañoo xam ne njaboot gi ñoo fi ne noonu lañ fi nekkal lu koy jëme kanam rek ak lu ñuy may ndam mhm. loolu mooy sunu bëgg bëgg ngeen def di nuyu mbooleem ñi ma àndal ñi ah, ñëpp ak mbooleem kuréel gi ñuy seetaan laay mbay mi fi teewal mhm. sëriñ bi dañu mhm. ibnu Mm. ba Ablaye Mbaye moom ñu ngi ah. koy ziar baax te di ko mm-hmm. ñaanal sama borom yàggal ko te wéral ko moom bu ñu ko tuddee rek tudd nañ mbooleem ku mm-hmm. yaakaar Serigne Cheikh Fall Mbaor mm-hmm. rawata nañu ne fii ci Ndakaaru ndax moom jàmbaar dëgg la ndeysaan bu baax tubarkalla ñu ngi ziar ñu itam eh, fekk suñu fi ànd ak noonu Ibrahima Niang ñoom ak ñi ñuy seetaan rek ñu déglu ñëpp ñu leen di sant bu baax jërëjëf Fall yaram tubarkalla ah, sëñ Aliou Badara waaw santaat nañ ko bu baax a baax de xam nga ne moom ba mu tuddee sëñ Modou Mbende sama xel dafa dem si mm-hmm. euh, Baye Khalifa Major Baye Khalifa Fall Major di ko ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla mm-hmm. di si ziarale bu baax a baax euh, yaa Awa Gaye mm-hmm. soxna Asta Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax bàjjan di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Idrissa ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Badara Baro mu ngoog ñu ngi leen di ziar bu baax soxna Fall jëgg parce que euh, maam maam moom dañ koy dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko di ko bu wër a wër nag di ko ñaanal bu baax a baax lii muy def ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall rek la siy séntu te loolu moom wër nañu bis ba ku fa xam ne lii liggéeyul maam Cheikh Ibrahima Fall képp la du du du du leneen kon ñu ngi ñaan mu yàgg kaa taxaw ba tàmbali na ko génn ci biti réew waaye mu mu daj fépp rek mu daj fépp te liggéeyu Cheikh Ibrahima gi dafa war a daj fépp incha allah yaa ngi ci na na nga si maam Cheikh Ibrahima Fall kattanal ñu ko bëggee rek nga defee ko ni barke bi maam Cheikh Ibrahima Fall di di di nuyu ak ziar nak fédération lamp mam jaara Bousso hmm. soxna Fatmata Fall lamp nek ci bopp bi euh, rek ndeysaan mu ngi ñew si barab bi momit euh, jaar si commercial bi ngir hmm. euh, régler bis bi nga xamanteni ni lay wajal di ñeenti fan ci wéro avril 4 avril mom hmm. ci lañuy défilé national waye mom défilé religieux la ko dox ngir ma ni Serigne Touba Khadim Rasoul mo dok boomu jami mu tuddé ko défilé religieux diko défé ci avenue Cheikh amadou Bamba kon ci ndoxtelu ngone gi sëñ Moussa saw moom murit la ñu ngi ko mm. waxee ñu ngi koy ziar bu mm. baax a baax mm. Euh, moom maître ma dikke ñaa sëñ Ibrahima Gueye moom dañ koy ñaanal bu baax a baax suñu borom sàmm ko te lafal ko cat barki maam Cheikh Ibrahima Fall da di jàmbaar da di jàmbaar bu baax a baax si liggéey bi si bépp fànn nag yàlla na ko suñu borom taxaw gën ki taxaw liggéey bi rek ko ñor loolu moom moom moom wér ñu bu wër a wér wax dëgg yàlla ngir jëm ni Serigne Touba sëñ Mor Thiam Baye Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaye gamaay euh, ma nag euh, ma ziar te ñaanal bu baax a baax maam mm-hmm. Fatmata Fall mm-hmm. ca njaarim di ko ñaanal bu baax a baax maam mu yàgg fi lool te ànd ak wér mm-hmm. di waajur sëñ Cheikh Ngounda Fall di ziar bu baax a baax sëñ bi di ziar mboolem mbokki ak mbokki taalibe sëñ maam bég nañ lool sëñ maam jërëjëf sëñ Alim Badara Ndim jërëjëf sëñ maam Cheikh Fall di ziar beral nuyoo ak ziar njabootug sëñ Abdou Sakkoor Fall sëriñ Fallou Fall ne ci bopp bi di ko ñaanal baax suñu borom yàggal ko fa baax te may ko ak wér xam ngeen ne euh, la euh, le 8 avril moom itam la màggalu Sëñ Abdou Sakkoor ca Touba Linguère ñu ngi koy waajal bu baax a baax di ñaan fekk ko ak jàmm ak salaam di leen ziar bu baax di ziar mboolem njabootu Sëñ Abdou Sakkoor gi yëpp di jaajëfal bu baax mboolem mbokk yi ñu doon topp fii ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye fàttewuñu waa Pire sunu wéyjur Baye Talla Dieng ñu ngi koy beral nuyoo ak ziar bu ñu ko tuddee tudd nañu waa Pire yëpp mm-hmm. di ziar baax mbokk yi ñu àndaloon fii liggéey bi yëpp mm-hmm. euh, ma Dieng ak sëñ Masek ak Abdallah Baye Fall sëñ Assane Fall mm-hmm. sëñ Lamine Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi di ñaan ci barke sëñ Touba euh, lépp lu ñuy liggéey yal nañ ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall saayir ak batin jaa ngeen jëf